FM Senekarlah tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe ma ne suñu réew ba réew ba sunu gal gi moom du mës a suux du mës a suux ma ne dégloo dégloo dégloo di sunu kër FM seeni kër la. Sunu rajo jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd beek teewlu bi seen rajo Sunuker FM ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp àq waaye tam di baal ñëpp àq di ñaan suñu borom rekk mu boole ñu jéggalam gi di ko ñaan itam bu ñu jéggalee mu tasaare ko ci àdduna wërngër këpp mu saawaan baawaan ba fépp fu waay nekk rek jàmm jooju daat la ciy fekk xéwal gi daal la ciy fekk waaye itam wér gu yaram gu mër sëkk daat la ci it fekk ñu ngi di ziar suñuy xalifa diine yi nga xam ni. ñu ngi ci eh, biir réewum Sénégal rawatina Kaolack gi nga xam ni eh, fii la ñuy daal di yeewoo di ziar kilifa diina kilifa aada eh, ñoom ñëpp rek di leen ñaanal di ñaan suñu borom rek moo yàggal seenu taxawaay ci kanamu umma islamique bi ñi nga xam ni ñu ngi ci kër yeeg hôpital yi tëdd di ñaan suñu borom rek moo fëgg seen i bopp bañ mën a dellu ci seen i kër ñu fii féete ginnaaw itam moo may leen xol bu ñu ko dékkoo ba caabi mën leen a féete ak eh, kanam ñu nekk ci xat-xat ak tolof-tolof yooyu yëpp yàlla na suñu borom defal leen jàmm ak salaam gu mat sëkk eh, suñu waay dawle yi di ñaan rek eh, mu yeesal yërmandem ak njëggalam ci seen kaw ba fa ñu jëm gënal leen rek fi ñu jugee waaye tam yàlla teg loxo ci li ñu fi bàyyi di ko ñaan moom borom bi mu ñu may sutura saay suñu yeewoo rek mën a dox suñuy soxla ci jàmm te kenn duñu xamal dara itam waaye itam mu yokkul ñu suñu sutura ba lépp loo xam ne rek def nañ ko ci tooñ ko mu nëbbal ñu ko ndax lépp loo xam ni rek euh, def nañ ko mu suñu njuumte ndax suñu matadi ci doomi aadama ñu ngi ñaan rek mu sàng ñu malaanu kiiraayam gi euh, ci sutura euh, waaye itam may ñu kàttan may ñu dogu goo xam ne rek dootuñu ko defati ba ilaa yawmi diin di bokk ñoom plateau bi saay su nekk am ci mbig te itam Cheikh Tidiane Dansokho El Ibrahim Ka soxna Roqeya eh, di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi waaye itam eh, ci élément yu am solo yi nga xam ne ñi ngi ñu koy eh, indi rawatina analyse yu pertinent yi nga xam ne rek ñi ngi koy amee saa su nekk ci biir kër gi la maison lundi 22 août 2022 ngeen di ci ànd seen premier numéro de la semaine yemoo ko altine ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août atum 2022 premier numéro de la semaine waaye itam premier jour euh, de la euh, semaine soxna Roxeer maa ngi laa ziar. maa ngi laa delloo ziar soxna Marie. waaye yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm bu wér. ka yitte yeeg yu tey. waaw ah, yu tey xanaa ñu ngi kalang kalangi rek. ah yàlla baax na yu tey détails yi moom daa xaw a fukk juróom tëñu. Ah, ah yàlla baax na comme may nañu juróom rek. ah, ah. kon xëy na beneen juróom bi dina ñëw beneen juróom bi moom comme may na la juróom benn. dana la may juróom incha allah. dañ ko xaar rek mi ngi ñëw. <laughs> <laughs> yàlla baax na. <laughs> soxna Mari baa ngi lay nuyu di la ziar di ziar Cheikh Tidiane Eli moom xam naa ne atoo ko të. daa deeti na waaw. da def sama war ndax gisuñ ma woon. ay yitte rek xam naa ne cere jaa ko jàpp. cere ji baa tool yi. xam naa moo ko téye. muy witti yaram Elimane maa ngi koy ziar euh, euh, Ndeye Marie waaye itam euh, di ziar di nuyu auditeur auditrice yi nga xam ne rek saa bu ñu yeewoo ñu ngi ñuy teewlu ci 3w point sunu kër fm point com di xaar seen émission matinale bii di sunu kër matin fii ci biir sunu kër fépp fu ñu munti nekk rek ci àdduna bi ñu ngi leen jox seen wàccuwaay waaye itam di nuyu di ziar kilifa diine kilifa aada yi nekk ci biir réew mi yëpp di dem bu diwaanu Medina baay comme niñ koy defee saa su nekk jàll ba lew nañu seen jébbal fa suñ nuyoo ñu yóbbul ñu géew les xalif généraux di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah àdduna wërngal këpp. waaleykum asalaam wa rahmatulah Cheikh Tidiane. ngi lay nuyu di dem ba euh, fële ci diwaan bu Cap Skirring. waaw tey moom waa Cap Skirring laay nuyu Baye Dame Faye maa ngi lay nuyu yow ak Ndeye Fall madame Faye maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di wax euh, seen vacances neex na trop bi ngeen fi quitté ba léegi ñëwoo leen Ndeye Fall. vacances day mat. <laughs> Ndeye Fall sa euh, màggal gi ñëw na de lan ngay xaar pour ñibbisi. vacances day mat. vacances day mat. Ah. Ah. kon maa ngi nuyu ñoom Binta. Sayer Faye ñoom Thierno Birahim Daba Soda euh, bàyyiwuma kenn ñoom Tafa Faye ñoom ñëpp foofu tey daal toute la famille Faye. depuis Cap Skirring ñoo moom tey nuyoo bi. waaw eh, ah, tey daal ñoom laa beral nuyoo. Mm-hmm. tey daal ñoom laa jëlanteel. <laughs> Ah, <laughs> di di jaar kilifa diine kilifa aada yi faree ci biir réew mi ah, rawatina fii ci diwaan bu kaw Kaolack di jaar Cheikh Omar Dem foofee ca Casaville waa Medina Baye waa Lewna waa Pencum Sëñ Basiru bàyyuma kenn. di dem ba diwaañu sañ bambar di fa ziar sen khalif ba siixaan bàyyuma kenn képp koo xamante ne fàtte la rek ma ngi lay ziar ci altine ji tay di premier numéro de la semaine yemo yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août atum 2022 mbokki assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah ak mi ngi nonu di wat ñep di ziar ñep di dem depuis ba euh, du côté du golf sud di nuyu suñu animateur yi nga xamni jamono ji Euh, tegati nañ ko ci euh, raay bi di xool nu ñuy avancer les seenu gox euh, ñi ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu tamit ñi nga xam ne ñi ngi ci diwaanu Saloum ci 14 communes yi fi nekk yëpp ñoom Kéba Ka Kaba Signaté Mbaye ñoom ñëpp ñi ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay Mamiko Maram Thiam ñoom ñëpp ki ne bàyyiwuñ kenn bu ñu limee daañu juum rek ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di leen bégee leen wax ni nag euh, namoon nañ leen bu baax a baax waaye itam euh, ñu ngi waaj loo xam ni itam euh, bëgg nañ kenn ku nekk am ci sa gisin waaw daañ ci ñëwaat incha allah rabbi ñëpp ñoo xam ne rek ñu ngi ñuy ziar maam Fata Matafa depuis Saara ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waa Ramaka waaw ñu leen di nuyu di leen wax un grand coucou <laughs> suñu xarit yooyu suñu xarit toqal yooyu suñu xarit toqal yooyu ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ay ca ci kanam <laughs> tuuti rek ñu ñëw ak yéen ci li yi tey gannaaw ba juróom-ñetti waxtu jotee ba tegal fukki simili ak ñaar seeni kër laa ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew jëmale suñu réew kanam FM

ak euh, libération euh, kay bi nga xamni xeyna ci walum ndaj ñom nak ñom ñoy journal fait divers les milliards pour euh, PMC la galère pour les populations ci site aurifère de Mako bi nga xamni nak mo nek ci diwanu Sabodola ndax ci atum 2020 bañu rek la site a produit 5,8 tonnes d'or soit l'équivalent de 179 milliards de francs CFA pendant pendant ce temps les population de Tamba, euh, euh, Tamba euh, Ronkoto, particulièrement les femmes, vive le désarroi euh, total ñoom nag ci jamono yi nga xam ne ñi ngi pillé euh, suñu or nga xam ni rek ci atum 2020 lu toll ci juróom euh, yu toftal juróom-ñetti tonnes yoo xam ni rek récolté nañu ko ci wàllum or jamono yooyu nag jigéen ña ñu ngay dund jafe-jafe yu metti ndax boobu le site moom amoon lu leen njëriñ lii di Expresso ñoom jamono ji nag daal nañu ñàkk seen réseau gannaaw ba ñu jëlee dogal daal di licencier collectivement liggéeykat yu bari foofule eh, juróom fukki agent daat nañ leen di dàkkaat eh, ci loolee lii di UNSAS nag mi ngi dénoncé manœuvre bi nga xam ni moo am ci direction général bu Expresso nga xam ni coow yu métti moo fa juddu jamono ji ba tax kii di Guy Marius Sagna nee na moom eh, fukki atak ak ñaar yi nga xam ne Expresso def na ko ci réewum Sénégal amul ben investissement bo xamni rek jëmmal nako fi ñu xamni ni ah, opérateur opérateur téléphonique ah, def nako ci réewum Sénégal le soleil quotidien ci mise en œuvre du programme cash transfert 173 163 028 bénéficiaires à la caisse de cette ah, semaine yo xamni mom moom réew mi moo ko daal di rek euh, tegoon muy ab programme cash transfert boo xam ni euh, ci lay yónnee euh, lii di wàllum versement dû à la campagne électorale des législatives yi mu leen digoon moom jamono ji nag daal dinay jërub tablette am fas yéene rek dugal googule koppar ñu wax ak le mandat ci le dio bi tey Aïdara au cœur de la Sénélec ak coow yi nga xam ne rek judd na fa crise ba fa nekk itam muy coow lu métti waaye itam bekkoor bi nga xam ne nag mën nañ jàpp ni moom moo leen di gane ndax euh, plus de 100 milliards de francs CFA aux banques et aux euh, fournisseurs par la Sénélec le duo Biteye Aydara euh, c'est du je tiens tu me tiens maanaam am na fu ma la jàpp waaye tam am nga foo ma jàpp moo tax rek yónni coow juddu ci Aydara ak kii di Pape Demba Biteye ñu wax ak enquête yéene ci les nouveaux combats de l'UMS muy union des maires du Sénégal, union des magistrats plutôt du Sénégal crie leur grand euh, dénouement bi nga xam ne rek jamono ji moom la ñuy ak des juridictions statut voiture de fonction yooyu yëpp ñoom ñi nga xam ne ñooy euh, daal ci rek addu euh, di Ousmane Chimère Diouf pour un budget pour le budget de 2022, aucun franc n'a été prévu euh, pour l'équipement et la réhabilitation euh, des juridictions euh, yi nga xam ni ñoo fi nekk muy bâtiment yeeg yeneen kër yi nga xam ni ci la ñii di àttekat yi di nekk nee nañ le budget ñu wote nag dugaluñ ko ci wàllu wu ni mel la réponse musculaire de Farbongom à Abdoulaye Sow ci différentes sorties de Sonko moom nag jël na Khalima itam ak kàddoom rek fas yéene tontu ki nga xam ni mooy Abdoulaye Sow bala gannaaw ba génne génnee ci sortie yi Ousmane Sonko rek def source a ci njéye gi nga xam ni mi ngi am ci compte Wave yi nga xam ne ñu ngi leen di vidé ci anam yu doy waar kër gi nag di mobile money di Wave ñoom nag jamono ji li ñu nemmeeku mooy ni yu bari ci ay compte seeni client dañu ko euh, vidé on m'a volé euh, mon téléphone euh, jeudi ci li nga vers 17h momi de di client Wave ci lañ dal rek di 17h30 le vidé compte ba set le la ca di euh, franc fa ki tamit neena na dañoo vidé compte am euh, gannaaw rek bañu addo euh, àddoo kalpe moom itam di di sagam 100000 jàpp 150000 mo nekkoon ci gogulé compte mu melni ni daal de wóoratul sax ngay bayyi wéef ci xaalis ci sa biir compte ndax nañ koy vidé rek jéggi na doyoo ndax ñakum sécurisation ba fa daal di rek nekk après une émission de à supervision euh, de l'état d'avancement euh, des travaux euh, du Promoville à Tambacounda la di bingo date nañu am satisfaction bu ci bi ne Promoville Manga daat a rek wan ginnaaw ñii di waa PDS gannaaw Karim euh, fësalee ay kàddoom ci xalif général des moulites ne dafa bëgg rek euh, def euh, li dafa bëgg bokku ci élection élection présidentielle yu 2024 ci la dal di moom itam wan ginnaw ñi di wa PDS les échos yéene kaay ak assemblée générale du CNG de lutte plus de 30 millions coupés au leader cette saison ñi nga xamni ne jot nañoo bari

Euh, d'organisation. qui reçoit carte blanche de euh, ses députés pour les postes yi nga xam ne rek euh, moom la ñu moom la def 14e législature Bokk les ministres doivent défendre la politique définie à défaut le jour de l'installation de l'Assemblée connue aujourd'hui li nga xam ne fay tey lañ ci xam lu yees gannaaw les écoles yéene kaay ñu wax ak Walf Quotidien ci primature ak assemblée nationale jamono ji nag moo daal di up bopp kii di Mimi Touré kan la war a doon moom la wala kenn ci ay jegeñaaleem la ñu nar mu nekk élimaani jëwriñ yi wala moom la ñu nar a tabb rek mu nekk njiital assemblée nationale Pierre bi Atepa ba tey ci Walf Quotidien et si on transformait le BRT en transway euh, muy euh, bo xamni rek euh, bus rapide transit yi soppi ko def ko muy genre métro yi nga am ci yi ndax mu a ak pilier yi nekk fi ci Sénégal lawatina euh, ngir jóge Géejawaay dem ba diwaanu euh, Petersen suite Quotidien euh, ci fonctionnement normal et sans heures de la 14e législature le pouvoir lié à l'opposition ken mënul dem bay sa morom jamono ji ndax ño tolloy danaka ay voix ci bi li nga xamni rek moy assemblée nationale mon docteur El Omar Diop bu ikat sans une négociation entre l'opposition et la majorité euh, sur certains euh, dossiers. La collaboration sera extrêmement euh, difficile. La majorité a intérêt à se rapprocher davantage de l'opposition ci ñii di euh, nguur gi l'exclusive yéene kaay poste de premier euh, ministre et si la solution venait du sud manam ñi nga xamni ñoy député yi faré ci wala bokk ministère yi faré euh, ci zone sud ba bu fekké ni rek mom njiitu mi mën naa tabb kenn ci ñom mu nekk élément ni jëwriñ ñi chantage intimidation et ou acharnement Cheikh Tidiane Ba ignore royalement qui di farbangom te diwanu euh, euh, Fouta ak Agnam dans le silence coupable de Seydou et Bamba Fall face aux assauts euh, du griot du palais contre le DG de la CDC Alam Fall responsable à ca Medina, Medina, Patirel nga ne Amulben loolu lay daal di rek eh, ñaawlu ba tax kii di Cheikh Tidiane ba moom da koo rek eh, zappe Vox Populi eh, ci 9 heures d'audience entre Macky et ses députés juróom-ñeenti waxtu lañ daal di rek tëju ca palais de la République ngir xool naka la ñuy installé seenub bureau parlementaire foofu le ci diwaanu assemblée nationale les temps forts d'un marathon bi nga xam ne rek moom njiitu réew mu sekk na ko ak député yu yees yi nga xam ni moom la ñu yóbbu ca assemblée nationale Abdoulaye Seydou Sow et Farba Ngom soulève euh, le euh, préalable Adji Sarr so dossier ba nag jamono ji euh, sulliwaat nañu ko tegaat ko ci li nga xam ni rek mooy Ousmane Sonko mu mel ni nag li askan wi doon wax mi ngi bëgg a doon dëgg ci li nga xam ni nag gannaaw bam déclaré candidature ci élection présidentielle 2024 l'observateur euh, ci la fièvre euro hémorragique de euh, Crimée au Congo au Sénégal alerte rouge euh, sur la santé 4 cas enregistrés dont un mort trois régions touchées le cheptel infecté ci li nga xam muy bu Crimée ak Congo nous rek euh, mu tuddee ko Congo na ci Sénégal lañ ci alerte rouge rek compte rendu de 9 heures de conclave la parole aux 82 députés les tentatives de débouchage de Yewi et les consignes de guerre du président Macky Sall je suis attaqué critiqué waaye du la bëgg def def euh, euh, la mauvaise influence des prisonniers euh, transférés à rébellion dans les prisons yi nga xam ni nañ conditions yu baax ya ñuy tax day jur ay révolte ci ñoom ñenn ci sax transféré leen ci ay dañuy de fin la dépêche du trafic illicite de bois dans le département de Goudon pour la gendarmerie fait tomber le réseau de euh, Samine et de euh, Tanaf yi nga xam ni fa la ñuy gën di dem di dag suñu garab yi ci all gi di ko yóbbu euh, ca bitim réew ñoom gendarme yi nag daal nañuy def ab vaste opération ba démanteler réseau ba nekk ca diwaanu Samine ak Tanaf critique yéen kaay ci un dossier plus que mortel euh, Moui Adissar euh, suite bu y a-t-il un magistrat prêt pour instruire le dossier depuis les événements douloureux de mars 2011 2021 euh, la justice platine sur une affaire de meurtre qui de plutôt qui si elle concernait un simple judiciable aurait été tranchée depuis Madame bu Konerec. kenn euh, la soxaloon ku fare ci wàllu nguur gi moom tranché nañu ko bu yàgg waaye la wax comme dafa rek euh, bokk euh, cib koo xam ni ci kuje gi la dekk bu ñu sukkandikoo ci kayité gi yéene mën nañ jàpp ni rek dañu koy daal di rek tere ne Fatma Samoura affole la short liste de Macky ci li nga xam ni rek mooy wàllum Euh, le war Tibo Priomi ci Eliman Djurini yi wax nañu ko sànq ndax bu fekke ni rek zone sud bi alerte quotidien wad ak Dalt dal di rek door li di bi quatorzième législature ak yañu fa nara rek amal si Ousmane Sonko qui n'a pas encore goûté au délice de la magistrature suprême a tenu à dire qu'il ira encore à l'assaut du pouvoir hein à euh, l'an 2024. Momi, des actuels présidents de la République et son prédécesseur ont quand euh, eux-mêmes euh, préféré se focaliser sur le présent bi nga xam ne rek euh, moom la ñu daal di rek euh, nekk réew mi quotidien qui tire groupé du pouvoir contre Ousmane Sonko ce dernier euh, fragilisé par l'affaire Adji Sarr bi nga xam ni génne war nañ ko teg ko ci table bi ci la rek ñii di ku déggi ku ci mel ni Farba Ngom ak Abdoulaye Seydou Sow fas rek utilisé comme arme de guerre ngir déstabiliser kii di Ousmane Sonko muy dossier Adji Sarr un boulet euh, pour Ousmane Sonko, remobilisation de Ben Bokyaka et perspective des présidentielles euh, yi Khamni ni tribune pour accélérer le retour de Karim Wad, maître Wad, euh, appel au Khalif le protocole de Masalikul Jinan devant Serigne Mountakha qui avait promis le retour de Karim sans condition Wad fils annonce en même temps sa candidature au euh, Khalif euh, Mohamed Nirek Moumleniko rek qui euh, lañu ko ki di Karim Wade fas samp élection 2024 Niel walum présidentielle conséquence de fortes des fortes pluies sur le territoire national Kër refuse Rufisque Sikap en détresse un mort à Saint-Louis gannaaw ndox yu metti nga xamné rek ci territoire national bi euh, diwaan yi di Kër Massar Rufisque Sicap Mbao euh, ñoom jamono ji nag fees dell lañ defaat euh, ci yooyu le taw ca Saint-Louis moom am na ku ci jot a ñàkk bakkanam l'indépendance justice les magistrats tiennent à leur indépendance maanaam dañoo bëgg rek démarqué wu bu baax a baax ci li nga xam ne moom la leen ñëpp di taxé ne dañoo nekk jury euh, justice boo xam ni indépendant wu ñoom nag dañoo bëgg nekk ñu neutre ci seen wàllub liggéey lii quotidien ba tey Abdoulaye Seydou Sow à Ousmane Sonko un leader politique qui attaque l'armée une grossièreté choquante moom lañu ñu daal di xamal moom Abdoulaye Seydou Sow dal na bu baax a baax kii di Ousmane Sonko en tournée durant les man les inondations à Anne, Pape Demba Bitey promet la création d'un autre poste de Sénélec euh, gannaaw coupure yi metti yi nga xam ni moom la ñuy euh, jànkuwanteel mu demoon nemmeeku leen waa Hann daal rek euh, xam ni fas fa taxawalat Benen poste bu Sénélec classe Quotidien ci audience avec les députés de la mouvance présidentielle Macky dope sa troupe gën na leen ñu fas yéene rek teguwaat eh, ci eh, raay bi 14e eh, législature bi nga xam ni fas nañu ko installé ay fii ak fan yu néew journal Le Vrai ci premier ministre gouvernement avenir de Benno et troisième mandat les tracas du président

de français CFA ci trafic de faux médicaments lañu d'Al di rek euh, teg loxo ci xayma mu tollu euh, juróomi milliards ci suñu koppar il s'agit d'une question de santé euh, publique que les États du monde entier devraient prendre en charge pour éradiquer le phénomène surtout en Afrique et au Sénégal bi nga xamni rek ñun jamono ji li di faux médicaments sonal lañu naam bu ni sax douane sénégalaise mi ngi def liggéey bu Interpol dugal na ca ay Lidi ndax Ata na lii di état Afrique yi dañ cee war question de santé la euh, direct news euh, ci législative 2022 euh, dans le département de Mbour le monde rural sauve Benno bi nga xam Tigor, rek ñoom ci gox-goxaati ndaw rek majorité diggante euh, qui dit Tening Sen, Omar Youm euh, cher Issa Sal, Salou Samb ak euh, dit Omar si ci seen i diiwaan ñoo fa daal di gagné bu baax a baax moo rek lii di Benno record bignot Amti, il est législatif les députés de Beno Bokk au palais le quotidien ci la xëy salle des sages la rencontre a duré de 16 h à 2 h du matin ci. Euh, le gouvernement formé au lendemain de l'installation euh, de l'Assemblée euh, nationale fukki faut ak juróom ci ngoon ba ñaari waxtu ci guddi rek ña nga toog di discuter si li nga xam ne rek moo jëm ci wàllum assemblée l'info quotidien ba tey douze listes pour les élections du haut conseil des collectivités territoriales benno en route en roue libre ñoom nag nu leen neex lañuy Dawei euh, ci yooyu le euh, liste euh, bés bi le jour ci audience avec les députés ci la xëy Macky député ci li nga xam rek moom mooy ay député Benno a manqué de solidarité et de générosité je ne tolérerai plus que des ministres et DG ne mouillent pas le maillot Idi Egnas donne carte blanche au président Euh, sur la euh, perchoir ngir rek ñu jàpp ni mën na déposer euh, lii di manda ci lii di candidat ci légis présidentielle yi ñu dëkkmal waaye moom jiitu réew mi ne dootul nangu benn yoon ñii di ministre yi ak directeur de société yi kenn dootul rek nangoo tooyal sab mayo ci élection yi ñu dëgmal 24 heures yéene kaay ci les va-t-en-guerre du palais ñi nga xam ne nag tontu dong la ñu nekkee ci nguur gi muy Farba Ngom Abdoulaye Seydou saw ak ñeneen ñu ni mel ñoom nag ci la 24 heures euh, yéene kaay daal di xëy ak situation politique euh, ak candidature bu Ousmane Sonko. ca ñu rek daal di euh, nekk euh, Toussaint Manga itam nee na démissionné na euh, ci parti démocratique bu sénégalais cent personnes en pénurie d'eau ca diwaanu Vélingara Médina ak foofule di Mali ñoom lu toll ci juróom-ñaar téeméeri doomu aadama ndox moom da leen Euh, comme euh, doom bu góor ñu wax ak li nga xam ni mooy tàggat yaram stade yéenekaay kii di Sadio maane ak Elimane Ndiaye euh, ci match yi nga xam ne doon nañ ko amal ci weekend bi kenn ku nekk am nga ci ñaari bal yoo xam ni rek moom nga dugal record yéenekaay itam ci la xëy ak weekend bi nga xam ni cauchemardesque pour trois Lions diggante Kalidou Koulibaly Edouard Mendy ak Mbaye yi nga xamni nak uh, ay uh, jéyal lañu def mën nañu wala ay erreur lañu def ci seenub uh, club bam jural len ñu daal di ñàkk yenn ci seen match mom Sadio en tête des buteurs jamono ji ci fa nga xamni rek moy Bundesliga bu Allemagne Sport Plus ci boulette de Mendy Kalidou Koulibaly expulsé ndax match biñ doon amal ci diggante Chelsea ak Crystal Palace dañu ko daal di rek rouge mom midi Euh, Mendy nag jot naa jër lu mat ci euh, trois bi yoo xam ni ba ca benn ba erreur moo tax mu daal di koy rek euh, encaissé Iliman Ndiaye moom di international sénégalais daal dinay am ñaari bu ci match bi nga xam ne rek euh, am nañ ko ligue sénégalaise de foot moom fase nañoo démarrer le 24 septembre bi ñu dëkkmal sunu lamb lañu koy daal di jeexale ak euh, saison 2021 2022 bilan financier du CNG 170 millions encaissés 157 euh, décaissés dépensé ci diggante fayum arbitre ak yi nga xam ni ñoo ko ak 12 millions en caisse moom lañ daal rek am euh, ci 145 euh, 145 journées yi nga organisé nañ ko écrit euh, écrits en lice vers une réduction du temps des combats Bira la saison prochaine il y aura des changements de bëgg rek wani timing bi nga xam mbëri ci la à mon guide Bordeaux clash vérité tout le monde doit s'unir derrière moi nee na ñëpp rawatina waa écurie Fass dañoo war rek euh, joxante loxo booloo bokk doon nekk ci ginnaawam ngir li ñu bëgg rek ñu mëna a daldi daal di am te boobule écurie mu ngoog lii fi gënoon fës ci li ëttu yëglekaay yi xëyee tey ci kanam tuuti ñëw ak yéen ci yaatal gi. Sunuker FM seeni kër laa Kanji déglu dégloo ci sunu kër FM sunu radio la altiné ji bokk na ci kër gi di euh, opérateur téléphonique Expresso ñoom itam ñi ngi ci ay jafe-jafe yu metti euh, la ñuy dénoncé mooy ni euh, licenciement collectif bi nga xam ni def na ko ci ay employé bi la yoon nag dàqaat na lu toll ci juróom fukki agent yoo xam ne rek sans droit waaye itam amul leen loo xam ni rek lam mu leen wax mooy ni c'est pour des raisons Euh, économique euh, defe naa élément bi jàlloon na euh, keroog aljuma bi la yoon nag daal dinañ ci xëyaat ak njombe yi nga xam ni directeur général bu Expresso di nga xam ni rek moom di arit mi ngi koy def ca googule kër gi may saañi itam la mu def constant mooy ni fukki at ak ñaar yi nga xam ni kër gii di Expresso def na ko fii Euh, amul benn investissement bu mu jëmmal ci euh, réew euh, Sénégal du doon dara loo xam ni rek mën nañ jàpp ni lii di Expresso def na ko moom njiitu réew mi juróom-ñeenti waxtu la tëj ay député mi ministre am di leen rek dal bu baax a baax ñenn ñi nee na leen nangu dootuma nangu benn ministre wala benn directeur de société rek di bañ a muyee la mayo ci bu ay jongante amee Mimi moom ci guddi gu setagul la nekk ndax diggante primature assemblée. kan rek lañu wara mëna tek a tekk ci le euh, boobule gannaaw euh, tëju gi nga xamni rek rek jitu rew mi euh, def nako ak i jege ñaaleem mi wa gendarmerie ak interpol ci walum enquête def nañ ay démantèlement yu am solo ndax réseau bu samin ak tanaf ñi dag garab yi di ko ci bitim rew di jaay jot nañ leena démanteler interpol tek na itam lu tollu ci Euh, médicament lu bare bare bari euh, faux médicament yi nga xam ne moom la ñuy dugal ci euh, mim xew valeur ba toll ci juróomi milliards ci suñuy koppar gannaaw loolu tàggat yaram moo fi daal di rek fës ak exploit yi nga xam ni ñii di gaynde Sénégal ñi ngi koy def rawatina kii di Sadio ak Elimane Ndiaye moom Kalidou Koulibaly kii di Edouard Mendy jamono ji nag euh, seeni supporter ci diwaanu Chelsea ñi ngi leen di dal bu baax a baax ndax euh, jafe-jafe yi nga xam ne rek ñu ngi koy causé boobu lee équipe mu ngoo ko seex Tidiane njiitu réew mi def na ab conseil maanaam di remobiliser troupe bi gétt gi la dajale waat waa Ndeye Marie comme ni ma ko waxee woon rek bi élection yi jàllee euh, Euh, président de la république ñun luñ xam moom xam na ko fukk parce que am na ay renseignements généraux. Mm-hmm. te Ndeye Marie comme ni ma koy faralee di wax rek jaru sax ñuy dem Dakar wala fenn mais xoolal fii les représentants euh, de la l'APR au niveau de la région de Kaolack. et mm-hmm. du département lan lañ amal jeunesse bu Kaolack emploi du aide du dara. Mm-hmm. yéeg seen i 4 nekk ci seen i mbir Diallo. bu Pama ñoo bokk koñ. Mm-hmm. Mbaye Sokoma bu yor direction euh, ci wàllum fonction publique ba nekk ci Tëngéej ñoo bokk koñ. Euh, ba ji ban njëriñ lañ amal jeunes ya nekk ca koñ ba am diplôme. Mm-hmm. waaw du création du la. du ba ñoom ña ñuy àndal sax dañuy def réunion ñuy xuloo seen biir. Mm-hmm. ñoom ñañ àndal ah, parce que euh, parce que ñoom benn waaye mës na wax ne ma. mbay soo commandé lu mu bëgg ci Mariama Sarr dina ko am te man chauffeur laa te man bëgguma di toog buntu këram mu may may ay 2000 wala ay 5000 damaa bëgg mu utal ma poste chauffeur ci ministère yi. Mm-hmm. mu ne bu ñu ko waxee benn waaye kooku na ko boo ko waxee Mariama wala mbay soo commandé dana gaaw wala jàllu te pourtant ñoom ñoo bokk section ba nii mun na ko defaral say kayit jox waa ji defar ay kayitam jox ko kayit est-ce que janax yi lekkuñ <laughs> kooku kooku tey kooku da Maryam salfarla la annabi koso wala nga dem le président RAS yow yow do def ben démarche sax woko ko yow dal yow dal da ngay tok rek japp sa ñamr da ngay tok rek dal di japp sa ñamr et ça et ça c'est pas du tout normal man hmm. man nit ki nit ki nit ki nday mari bu fekke do ko jël bu ko wax ne ko indi yaakar dafa for te ku tass yaakaru jàmbur yalla tass sa yaakar yaakar dafa foor yaakaar te tey yaakaar googu noonu mooy ñoom Amadou Hott ak parce que na Dia wax na ko benn émission mu ne Macky Sall xaalis bi mu yëkkati di ko jox directeur généraux yi di ko jox gars yi te duñ ko amal benn njëriñ mais effectivement tey soo ko joxee say mbokk ci say biir famille est-ce que say mbokk yëpp buñ la votelee dina tax nga falu il faut que askan wi voté la nga falu soo gisee njaafat kenn mënu faa ay Aysatu Njaay lu doomu dëkk ba bëgg di ciy taxaw ak ñoom mooy yoon de docteur Macoumba Diouf day dimbale ndaw dëkk ba même bu fekkente ne du xaalis mais quelques postes yu ndaw yoo xam ne mën nañ ci am as dara bu boobaa ñooñ dañuy xam parce que ku la defal lu baax boo ko waxul buy lim say noonu teg la ci mais dara dara dara dara dara waa li chaque jour dama koy wax waa APR ñëw gën a ingrat bokk ñoo sax waa Ablaye Wade am na ci ñoo xamante ne Ablaye Wade ñu leen fi fale ñu bëri ci lañ am quota di jàngale sama koñ maire yaa fa nekkoon am BFM chômé mhm. ñu bëree bëree bëri ci taw Ablaye Wade bi lañ leen jël ñu dem jàngale ci donc bu bu Macky Sall faloo dindi loolu frustration day am moo tax jeunesse yi koo bëgg mhm. parce que tey koñ ba ñu bëree bëree bëree bëri avec leur niveau tellement faible Ablaye Wade jël leen ñuy jàngale avec un niveau BFM ma la sax terminal BFM lañ am bàyyi toog ay dix ans jànguñ tey ñoom ñoo nekk ay enseignants ci école primaire parce que état parce que inspecteurs yi ñëpp doon am kota Abdoulaye Wade di tabax ay école fu ne sa crée de l'emploi ñu ci bëree bëree bëri bu njëkk ba pour nga jàngale moo gënoon yomb mm-hmm. bu njëkk ba fat-fat nga jàngale mais xoolal léegi ñaata nit la ñuy boole jël seen dix mille francs plus de quatre millions de candidats jël seen dix mille francs ba pare lekk ko daal di jël vingt sept xoolal loolu day mari <laughs> moo tax léegi Sénégal ba ko nit ñi naan dee léegi concours da ngaa gisati kenn dem di ko def kan mooy def concours. kenn ko da ngay defar sa nationalité defar sa lépp dem toog joxe sa 6 000 wala nga joxe sa 20 mm. 000 léegi sa dañ cey téppérle léegi 10 mil francs nga joxe sa 10 000 francs ñu daal di koy lekk demal def concours sit si ñu de ñu de concours sit si boo ko defee ñu jël ñu la neex nga daal wiiri daal dem INSUP wala nga dem benn école uti diplôme boo paree ñëw dugg ñëw dugg sit si mm-hmm. daal daal def sa formation professionnelle bu 9 mois bi am diplôme comme kay def 3 ans te sax boo génnee yow yaa yow mën nga di liggéey sax yow di yow di ko fay. ay ñu du Mamadou Matar Sarr journaliste Walfadjri bëri noonu la Idrissa kii Cyril Lamine Niass defal mu doon loo xamante ne tey entreprise bi bu la recruter nii sax dalay lay gën a jàngalaat. entreprise privée li amul amal njëriñ sax état bu Sénégal amul ko njëriñ. pourquoi ñu leen dàq parce que yow amul lo njëriñ sa gox mais ba légui yaa ngi ci poste bi nga nekkoon. du loolu la bëggoon a ñëw. ma bu ne leen bu ne leen muyé leen le mayo. ci ndogante bu ñëwé muyé leen le mayo ci askan wi la waroon a wax. yalla wartoon a wax ne muyé leen le mayo ci bu jongante ñëwé waaw dëgg la dañoo war a génn ci terrain bi. def seen kéemtalaay kàttan pour ñu gagné waaye ba avant loolu nga yëg askan wi ba pare. wa lool la lay wax pourtant fa la démarrer déggoo ma ne la Diallo Pama suñ koñ la dëkk amul kenn benn jeune buy taxaw buntu kërëm mbay soko ma la même chose. comprendre nga. soxla wuñ sax jeune jeune yi di taxaw seen buntu kër yi soxla wuñ lool liñ soxla mooy ñu créer dara dugal leen fu ñu dem di liggéey. wa lool la may 5000 jox ma liggéey. mom très bien très bien te nday mari te nday mari tay nga déposer ci entreprise privée mu jël la mo gëna yom RTS kum jël. dama lay laaj iris yi kum jël rajo Sénégal international RTS Kaolack mës nga gis journaliste bu ne maa ngi defi stage RTS Kaolack. Mm-hmm. kan la Ndeye Marie. kan kan la. kan lañ dama ne la mës ngaa gis journaliste buñ formé ba pare mu génne ne maa ngi defi stage RTS. déedéet amul. ma de ba woo nañ def naa ko mos nañ woo. mosuma sax jot coup jeex na te tey entreprise privée bi tey Ndeye Marie. bu demoon tey ci benn rajo privé déposé fa dañ koy woo fat-fat ñu ne ko kaay liggéey parce que dañuy xool cv CVM xool fi mu jaar taf taf ñu ne ko nday mari envoyé ñu sa lettre de motivation. man li ma jaaxal mooy ñoom lañ gën a néewal te ñoo gën a recruter privé yi léegi ñoo gën a recruter. loolu laay wax nii. yow public dañoo recruter kenn. comprendre taf taf. xoolal bu ko defee bu ko defee nday mari day toog ba benn instant ñu daal ñu daal di koy woo ne ko envoyé ma sa CV. parce que entreprise léegi bu la soxlaa mën na la mën na mën na ma envoyé sama mën na ma envoyé seen boîte. Hmm. ne ma joxal ma ko Ndeye Marie Dabo mu envoyé ñu fi CV Ndeye Marie bu ko envoyé tey lundi mën nañ toog jeudi ñu ko allo télé diw ñun ñoo la soxla. Hmm. ñu waxtaan mun na ko mun na ko fii fii nga jaar Ndeye Marie ne leen waaw ñu ne ko léegi envoyé ñu sa lettre de motivation ñu nekk ci dossier yi day toog benn jour rek ñu woo ko te hmm. privé lay doon nga def ko état du la woo. dama déposé RTS. maanaam xam nga kilo kilo ki la nga tey bu fekkoon ne da ngay woo ni ki sax am espoir ni man dinañ ma woowaat ma ñëw liggéey si <laughs> du la woo ñaata nit ñoo fa déposé seen CV ñaata nit ñaata nit laa lay laaj rek. xam nga boo dee hmm. ah. dañ koy maire yi jaay caaf de lañ koy may. bu dee non fekkee c'est électronique sax boo ko defee boo ko defee électronique. Hmm. xam naa ne xam naa ne seen ba fees na te duñ ci woo kenn. ku ñu woo duñ ci woo kenn te tey boo déposé woon léegi TFM wala nga déposé RFM ne stage ñu jël la stage di la rémunérer. Mhm. comprendre da ngay togg benn jour rek ñu daal lay woo ne la da nga fay déposé woon sa CV envoyé ñu sa lettre de motivation nga envoyé leen ñu toog ba quelque temps ñu ne la kaay liggéey si doo ko sax foogee. Mhm. li fi am njëriñ li fi Zik FM am njëriñ li yeneen télé pri rajo privé am njëriñ public ba amul leen njëriñ. nañ ko waxtaanee te dee rajo municipal a ngi nii c'est public amul njëriñ waa Kaolack yi fi yi yeneen rajo yi am am njëriñ moom amu fi njëriñ li fi suñu kër am njëriñ moom amu fi njëriñ te yow yaa waroon ëpp moyen fuuf yeneen rajo yi parce que tu tu dépend de l'état parce que Ndeye Marie lan mooy lan lan lan mooy problème bi loo xamante ne ay question bi daal yaa ma neex la très yaa ma neex ak ndono su ma toogee su may retraité ci sama doom mu ñu toog commencé forme te nday mari l'homme à la place qu'il faut man dañ ma recruter naa ko fii ci domaine am pagaay yor si yi doomam nekk mu di ko wëral si tiroir yi mun a ko kii sama doom la mu leer na ne dafa ñëw pour remplacer yaayam waaw ñaata ñaata ñaata ñaata jeune ñoo fi nekk yor ay diplôme jàng. am pagaay am xam-xam boobu jëm foofu def ay stage wala ñu déposé fa seen ay ay ay ay CV. am pagaay kenn jëntiwu leen. mais dama lay dama lay jox dama lay jox cadre Ndeye Marie dama lay jox cadre euh, dama lay jox benn benn exemple. Mhm. tey jii nii comme tey euh, Omar saw jaar na fu nekk. yow du xam nga Omar Sow. Ah. Mhm. jaar na fu nekk mais bu benn télé soxlaa. ah du da koo woo pour mu ñëw liggéey sil ko comprendre dañ koo woo moom mu ñëw liggéey sil leen mu won leen seen mu won leen compétence ñu liggéeyal te tey ji bu doon Kaolack télé boobu moo fi tijji waa Kaolack ñëw nañ yàq tele bi dem seen yoon. nday mari xam ne li may wax. te pourtant télé boobu mi ngi fonctionné normal mi ngi ci TNT bi gars yi ñu ngi koy jàpp normal. Mhm. te bu doon Kaolack la nekk ba tey de dee na Kaolack TV nekku fi. mi ngi jéem ba tey mënu dem. waaw ñu ngi góorgóorlu au moins man xam nga daa soxal li may bañ li naan jéem tale aayu ñàkk mhm, jéem moo aay. waaw mi ngi jéem mais waa Kaolack ñoo ko nar a yàqal. ñu ngi koy seetaan télé bi ñu ngi koy suivre normal mhm. xam nga tax commencé ne bu commencé ne mi ngi mos dara waa Kaolack ñëw gàddu gàddu seen i thérapie ñëw damaa bëgg ñëw kii moom mu daal di jël doo xool ñi am compétence doo xool ñi jàng doo xool ñi tarbiyu dama ko waxtaan ak Buraamu Ndour ma ne ko beaucoup de journalistes ne sont pas des journalistes Brahima ne ma daan soxal te ma ne ko métier boo ko tarbiwul doo ko mën. mënu mm-hmm. ma wax nga lu garaaw ma ne foo ko jàngee mu ne ma Dakar ma ne ma ko jàngee mu ne ma Dakar ma ne ko Ndeye Marie fu mu ko ci école du da ngay ci. mu mm-hmm. ne dafa am journalistes yi nekk Kaolack loolu moo leen manqué Brahima du ne ma c'est mu tarbiwu te bi ma koy waxtaan ak moom boobu yéen kenn toogu fa maag moom kese la ñuy waxtaan ci affaire journalisme ma ne ko xam nga lan moo manqué ñenn ñi mënu ma daal ma ne ko tarbiw mënu ma très bien daa sox métier boo ko tarbiw hmm. doo doo xam njëriñ ba nee nañ la sa jëkkër boo ko tarbiwu sax doo mën a am ngërëm hmm. Sénégal loolu lañ manqué da gis rek je suis de la presse sama doom am na bac kaay ma dugal nga liggéey ki dem Dakar yow cinq heures du matin di dox ñu yóbbu ko fu nekk mu jël benn dàll jàngee ko ñetti at kooku ñëw ñu ti ki jàngut teg ko ci kaw mhm. su ko defee ki jàng moom day am frustration ëllëg dana gis de ki jàng moom na garde rek ñëpp xam nañ compétence am ëllëg bu mhm. demee toog fenn tôt ou tard moom mooy raw ki jël teg ko ci mhm. kaw bu ko rawee ëllëg su ko defee kooku dina ne man de parce que buñ la sàccalee tamit toujours benn place boobu rek ngay des benn place un rek ngay am un ngay am ba keroog ngay gaañu <laughs> comprendre su ko su ko defee noo du question da soxor su ko defee frustration bi rek daal di am gaay gaay yi jàng élection bu jotee ñu dem sanctionné mm-hmm. yow moom dinañ la bàyyi sa salaire di nga lekk di nga naan di nga def lu ne mm-hmm. mais doo amal nit ñi njëriñ mm-hmm. Sénégal looloo tax tey boo demee ay ay Amadou Hotak yëmbal ñoom baara baarakay xaw nañ leen a rey tey boo demee ñoom maire Woré Sarr boo ko fekkee waaye sax xanaa bu déposé député moo lay gañe ndax lan la ko am Ablaye Wade doon mm. jox moom la doon yëkkati di dimbale ndaw yi di dimbale ci sàng ku ne ñii poor ñi mu dimbalé ni ci yenn pos yi di dem ci ablawa di ko ñaan oñaane ko ay ndaw dañoo top sama gannaaw te bëgg nañ yobu dara seen kër yi c'est ça un vrai leader politique mais ñi top sa gannaaw bo kee naan ko ñëw naa weekend ka ñu añ ci añ ci wuma suñu kër amna ciép amna lepp na lépp pomme seeru sénégal boisson bo defee 300 nan 200 sax faté na nañ may nit ñi nit ñi taluñ lolu ay bu élection jotté ngeen wacc ci mbedd meeg wàccuñ ci benn mbéd ñom ñoñu seen di say directeur menn benn directeur rek laa fi gis sax mu xaw a simple mooy pam ma démb bi tey ndax nit loo ko bañ bañ. waxal ko moom mm. au mi ngi def tournée. pour électrification rurale. waaw moom kooku moom. rien à dire kooku moom kooku moom bu ko Macky Sall defoon ministre de l'énergie Sénégal weesu na fii ci courant. kenn waxatu ko. parce que kooku kat la. Mm. parce que dama xam benn magam aadama bi mm. mu ne ma gis nga kooku ingénieur la mu ne ma bi mu amee oto yàgg. il faut qu'on mette les craques dans mm-hmm. magam ji xam nga lu ma wax. Ah, Pama Demba bi tey bi mu amee oto bi bi ko falee directeur général la am oto munuma te benn oto la am mu ne ko maire mu ne ko maire looy wax nii munuma Pama Demba bi te munuma sama doomu papa yëpp xam nga ñoom ay doomu baay la ñoo bokk benn baay munuma sama doomu papa yëpp tagguma ko sàmbay mbayaanu ma ko munuma sama doomu baay yëpp parce que magam laa xam magam mi ngi liggéey fii trésor munuma munuma gis nga xoroy ja moomu noonu jabaram munuma moo moom moo doon jox ma Demba bi tey oto muy dawal di ñëw di di seeti sam Quero bi comme Macky Sall drik ter général de la senelik keroog xam nga rek am na yenn poste yi keroog ci lañ ah. ko doro jëndal 4-4 samedi mi ngi fii bi sam papa gaañoo sax la wàññi di ki vi keni mais moom fi la bëgg te mi nga këram Dakar ah. moom mais moom fi la bëgg moom dafa bëgg Kaolack nee na nee na ñom sen ñoom famille dañuy wax naan ki moy suñu waliw moom ay affaire aduna waxu ci dara bo xolé ni muy wax dafa dem ci seigne Muntaxa seigne Muntaxa ne ko dama lay gis na la yow politicien yow kan nga justement dégg nga li ko maara bi wax yow doo politicien kan nga xoolal tey àll bi foo dem bitey bitey bitey bitey bitey bitey moom gërëm nañ ko sant nañ di ko gërëm di ko sant mais nday roqee sàll tey gën a ndaw am courant waaw tey nday roqee sàll tey boo bëggoon kërëm da ngay dox kilomètre dem jëndi radi wala am kuy ñëw di la ko kërëm rek ci kërëm maanaam kërëm xam nga àll bi ñoom dañoo bëgg kërëm ñu baal ma ci kàddu dañoo bëgg kërëm maanaam radi bi di nga koo bëgg comprendre man am na benn dëkk boo xamante ne mi ngi ba gannaaw wàkk nguna ñu koy wax kër Amady Ngenar mhm. mhm. sama rakku yaay fa la doon sëy bu ñu la waxee ne la courant am na fa doo ko gëm billaahi te pam ma dem bi tey yóbbu na fa courant dëkk bi mi nga ba gannaaw Njaay Kunda ah, kër Abibu Ñas nag temps yee lañ leen doon defal courant comprendre dëkk bu yàgg boobu ñaata at bi mu amee ñuy dund mënuñoo am bi mu amee bi mu amee paa bi paa bi dafa ma envoyé fii xaalis dama seex jëndal ma congélateur bu ndaw nga indil ma ko léegi ma jënd ko congélateur bu bees tàq yóbbul ko ko maa ko installé tal ko daal di def lépp congélateur bi di former normal muy takk glace di jaay. bu parfois parfois moom parfois mu rey benn bëyam dugal ci frigo bi di lekk. <laughs> waaye léegi nday roqee sàll ki la defal loolu kan ki la ki la defal ku la defal loolu kan kan ngay voté. gars yi voté luñ Macky Sall de pam démb bitee lañ voté. parce que ñoom moom lañ xam. bitee moom mention spécial ak kan le maire de Malikunda mm-hmm. kooku it aussi parce que man sama benn doomu sama benn doomu sama benn doomu yaay ma yaayam ak sama yaay ñoo bokk Maymuna moom dafa defoon formation après mu pare nag di doon def ay stage di yëngu Maguette Sène gis ko ci recrutement yi mu doon def ci jeunesse mi biir kuddu xam nga mooy directeur kudd hmm. directement la ko def embauche contrat à durée indéterminée biir kudd googu am fu leen placé waa léegi Malicounda kan lay voter ko ko defal tey ñaati directeur kudd ñoo jaar fii dëkkoon Kaolack da ngaa gis waa Kaolack génn ci Abdoulaye Sow Kaffrine la dëkk hmm. diggante Kaffrine ak Kaolack kan nga fi gis si à dire dañ la dul cest à yow dañ la dul amal njëriñ yow ci boppam lañ dul amal njëriñ lan lañ bëgg nga topp sa gannaaw yenn journaliste yi diw bi ma dajeeg moom sama xarit la may na ma cinquante mille na téye cinquante mille bu ma waree am cinq cent mille dinaa ko am te du jaar ci sa loxo. Hmm. jeunes yi parce que Sénégal fi mu nii c'est un c'est population jeune dañ ko waxtaanee te dee te Macky Sall boo gisee mere na leen trop nag ba ci Mimi Touré heure boo ko defee tëddali si ñuy ñuy dóor ko dóor yi métti def nga ko def nga ko Grand xale Khalifa Sall toog ne croiser les bras ba ko mu campagne ba sonn. mu dem ñu dóor ñëw gañe ko nga defaat ko nii heureusement sax bii. bii ah, bu doon mhm. waaw te bii bii lu tax sax mu gagné c'est grace à Pama Demba Bitèye parce que nee naa Sénégal profondeur la Macky Sall gañe mooy zone rural yi mhm. c'est grace à kii à Bitèye moo tax Macky Sall boo mënee jàpp Bitèye fukki loxo juróom jàpp ko ak Maguette Sène ak quelques leaders bul mat sax dix ñeneen ñi ci des dàq leen parce que amaluñ la njëriñ. non ministre yu bari ci jéem ay dañoo bëri xam nga sànq damaa tase ak ay ñaari maire bi may xëy si. maa ngi ñëw di leen dégg ñuy waxtaan ki naan ko waa yow Sonko ak ñëpp yem xam nga Sonko su baaxee sax ñiy topp ci ginnaawam ndax Macky Sall fii la ñëwoon naan ñu si ñaar laa yem. te mu ngi nii dem na bu ci fukk xam nga maanaam loolu noonu askan wi di jàmbat ba ci maire yi yor taabul yi sax di taaba taaba sax ñu ngi sentir problème bi sénégalais yi di mm-hmm. dund. mooy que ne dañoo respecté wut seen i ay kàddu respecté wuñ seen i ay jëfin respecté wuñ dara respecté wuñ askan wi. Mhm. xam nga ku respecté wul sa bopp nooy respecté sa askan. ma jaaxal su ma ñëwee dinaa def lii defoo loolu. gis nga euh, njiita réew mi sikkul de ñi mu teg ca gannaaw da leen jox ne leen liggéey leen ñëw sikk ndax nday mari suñ ma ñëwee jox ma 2 milliards ne ma liggéeyal kaw la ma jël benn milliard bi jënd ci samay terrain tabax ci samay kër yóbbu ci sama famille. Ah, jël ñenn ñu yóbbu ci ay entreprise ñuy liggéey. kan laa jëriñ du sama bopp. Mhm. su ma demee conseil président ne ma ana 2 milliards man la xam nga c'est que à dire fii la xar mi jaar. du ma indi benn rapport boo xamante ne nii rek yow la ca soxla da nga ko ca gis amut. kenn liggéeyu si kuñ ci jox xaalis nga dem lekk ko naan ko tëdd ak sa njaboot. di xool toog di xool askan wi lan lañ liggéey dara. loolu lañ war a bàyyi nañu respecté sénégalais yi. Mhm. nañu respecté ngir yàlla ñoom li xaalis bi ñu leen di jox ñun ñoo ko moom. suñu ay juróomi dërëmu xorom yi ñuy jënd ci marché bi fukki dërëmu bisaab yi moom lañu dajale jox leen ko. waaye yow kuñ ci def ministre nga am nga fukki oto am nga téeméeri kër ba kañ. gis nga loolu moom la leen waroon a wax keroog. loolu la leen waroon a kàddu yooyu lañ soxla woon président génnee ko jëmale ko ci ay ministre am pas fexe leen bu campagne ñëwetee ngeen gañe déedéet soxla wuñ woon loolu ci kàddoo yi de fexe leen post yi ma leen jox ngeen liggéey ko li ma sant ngeen liggéey ko loolu moo nekkoon waxam loolu wax ji ku ci liggéeyatu dinaa la sanctionné ku ci liggéeyatu dinaa la dàq te képp ku ma ci joxati post na la liggéeyal ma nàngam ak nangam jox la xaalis dinaa la topp boole laak ñoo xamante ni ñoo lay suivre soo liggéeyul xaalis ba foo ko dugal da nga ko génne baa mën a ràpp ci kaso bi ku fi sàcc te ma tëj la gis nga loolu su ko defoon ci ministre am yi léegi ñu liggéey. waaye loolooy wax ji nag ndax fii ngay gis ku sàcc ñu lay nëpp nëppalal. naan deful dara waaw naan deful dara askan wi ñoo bëggul ko liggéey fekk te yow boo demee ca kontam ba. la nekk cay milliards kenn mënu la koo expliquer. Ndeye Marie ñaata milliards ngay xëy di dégg ci dëkk. man kay li ma ciy dégg te man mënu ma cee gis. un franc chaque jour boo xëyee dégg ay milliards. yow daal milliards moom léegi million moom kenn waxatul ay waxam na fori new <laughs> léegi milliards rek ngay dégg milliards rek te yow un franc doo ko gis soo xëyee un franc doo ko yor ci sa loxo bi. yow daal chaque jour da ngay dégg riiru milliards yi nii rek waaye yow nga naan waa ana milliards yow gisoo ko fu ñu ko tabax gisoo ko fu ñu ko estel naa ko bañ moom waaye naa naa xam luy milliard rek. man naa gis milliard rek. naa gis milliard rek man man naa gis birig bi tegale ko nii rek. ay birig ay birig la. waaw ay birig ñu teglante ko nii ba mu nekk milliard nii rek ma gis luy milliard. imagine loolu. Farba Ngom lan mooy liggéeyam ci ci ci ci ci état bi. moom daal lu dul tontonte néew fi. moom ban post lañ ko jox mu géré. amul poste de mooy griot Macky Sall. mooy griot yow griot di président de la république kooku foo jëlee ay milliards. loolu géej mën a sàcc ay 800 nanga millions. moo tax euh, xaw ma garde corps la xaw ma ko ba ko sàccoon. juumu de sàcc ko de <laughs> félicitation moom moom sàcc ko de xaalisam la jël Farba Ngom fan la war a jëlee ay milliards nday mari moom bala moo nekk fii di ratatati di tontu wante ah, na lijjanti boppam na wax nit ñi fan la jëlee ay milliards am hmm. lan la liggéey moom ba am ay milliards gis nga Sénégal nag neexu ba neexul mais liñ fi war a wax dafa bëri de. dafa bëri torop te liñ fi war a lijjanti mu ngi fi ñu ne ci muut ah. muutaaral toog ci lànkare duñ ko wax ne duñ ko lijjanti. Mm-hmm. ba Ngom ban gisuma moom yor poste moom du député moom du ministre moom du directeur moom du dara moom am ban entreprise la ubbi boo xam ne dañ ne moom moo ko moom. ma jaaxal ndax añam nga mu sax man. moom nee nañ moom kottu kundung la. parfois nga tàppee les réalisation de diw. dans sa localité mu génnee la benn ferme bu mu fi def wala benn centre de formation bi mais moom doo gis dara. nee nañ moom këram moom cumputung la ci àll bi. ci digg àll ba la moom fa mu dëkk kenn dëkk fa. moom kottu jabaram ak ay doomam. allah dem ba këram moom ko wax te kooku moom ruus naa fen ci àdduna <laughs> wax dëgg la ma moom cumputung boo dëkk foofu. ak ay jabar ak i doomam ak ay doomam. àll kese waa léegi. kooku amul dara lu ñu ko wax ne moo ko samp ci réew mi fan la war a jëlee milliard. mama jaaxal nag. ba nga war a mën a nekk fii naan da ngay tontu wante. ngir yooyu ko fi gën a doon VIP fi nekk te duñu. ay ana El Hadj Mansour Mbaye. ay milliardaire. El Hadj Mansour kan moo ko gën a mën a def communication ci dëkk bi. kooku bu génnee def médiation ñëpp neem. ñëpp ne ñëpp. ñëpp respecté ko. Ah. muy wax lu rafet ci réew mi. Mm-hmm. yaa ko gis ak milliard. dafa gore de. ñaata ñaata communicateur traditionnel ñoo fi nekk. ëpp ko mm-hmm. xam-xam fuuf jàng macha allah. fu mu déglu ko yaa leen gis ak ay milliards. da ngay am dignité ak waaye man maay géwélu président day tax ma am milliard. ma mi président sax moom fan la war a jëlee ay milliards astama ak yow mi géwél bi yow. jaaxal nag yow liggéeyoo tus ci réew mi ñaata nit ñoo fi nekk di liggéey ñaata at un million mënuñ ko dajale. ndax ñu ngi leen di fay salaire boo xamante ne nii. suñu ca jëndee seen ravitaillement mu jeex takk fayal ca seeni doom ay jàng te am na si ñoo xam ne sax public lañ leen yóbbu ndax amuñ luñ leen fayalee duñ dese dara xam nga luñ yaakaar ëllëg bu ñu retraité seen pension boo xam ne danañ ko xaaj xaajaat ko ba muy mm-hmm. ñetti yoon ñu jox leen ko kooku muy liggéey mu lew ko domm mu doon fayeeku salaire mu lew ko domm kooku dem ba retraité neewu la ne lii laa dajale mm-hmm. parce que lañ koy fay jëriñu ko dafa sutur lu doylu kese ca lañ koy fay kooku amul ay milliards yow nga liggéeyoo A nii B. yor ay milliards. ak ay kat kat yi amul fenn <laughs> ah, ba pare nga ne yaa fi war a mën a nekk di ratatati di wax ku wax nga génn tontu ko naan yaay nii may naa gis nga xam lan la bu ñu fontoo bu ñu sonal. mu fi génn te di wax boo fi génnatee di wax nanga ñu wax si milliards yi foo ko jëlee. tontonteem gi dem na ba yóbbaale suñu bari ndax man Abdoulaye Seydou Sow. bi daaw ko dégg ci ay tontonte moom laa bëggoon a ñëw sànq moom laa bëggoon a ñëw sànq Ndeye Marie Abdoulaye Seydou Sow kenn mësu ko dégg ci ay wax. ay wax yi betekete ay wax yi ndax saxandang yi yooyu kenn musu ko ci gis kenn musu ko cee dégg mais ñoom dafa mel ne gone gi Sonko da leen di yëngal nag ah, daa mel ne moom seen grain de sel ci seen biir ci nii bu amut ci seen repas repas bi du délicieux. seen journée du neex. déedéet ñoom heure bu génnee wax ñoom ñu am luñ ci génn ñoom déclara déclaration candidature lu ci seen yoon ah. xanaa buñ fay jëlee wax ci bu Karim ndax. luñ ci tontu. ndax nee na day day day. ñoom kay ñoom kee samp dëndam ñoom nañ samp seen dënd rek. ku mën sa morom rey ki ci de. waaw. que le meilleur gagne. dafa jar ay tontu waan. billaay jaru ko. mais nit ki xoolante asamaan daal jaru buuxante. wax dëgg yàlla. loo loo sew sew bët ne sama bos da nga gis. waaw loo mi yob da nga gis loo presbytie da nga gis. asamaan si moom ñëpp koy gis de da ngeen gis xool asamaan jarul bokk da leen di. ku sa bopp daal. moom samp nam ndëndam yéen samp leen seenam ndënd rek. Hmm? jàmm nañ ñooy waaw wala déet. lu fi jar nekk fii naan waaw nangam nangam dugg na fii. fa la xar mu jaar di teg. yow dossier yoo xam ne borom dossier ba nii nag dañuy bañ bokk ca complot ba dossier boobu dañu koo tegee nële. fàtte nañ ko am na man sax fàtte man boobu ñoom ñoom dafa mel ne ñoom dossier boobu ñoom ci la ñuy sukkandiku à chaque fois rek ñoom dafa mel ne mooy seen atu daal. amuñ beneen argument ñoom dossier boobu rek lañ am comme argument amuñ ah. leneen. xëy na peut-être seen arme de guerre mooy seen dernière chance seen sànni tàccu. gis nga xam nga lan la bu ñu sonal dañ jox réew mi pour ngeen liggéey ko liggéey leen réew mi bu leen ñu sonal. bu leen ñu sonal ak seen wax yu bëri yii président de la république ay muyee la mayoo euh, pandale campagne ñun loolu soxlawuñu ko ñu liggéey réew mi lañ soxla ki nga ñëpp ñu nga jox ay post poste bañ leen taaj nañ liggéey mm-hmm. lañ leen jox démb mu ngi liggéey de bi tey moo ngi liggéey de wax dëgg moom da mu ngi liggéey xaw ma keneen nag xaw ñoom ña nga doon xas ñuy dëngali loos moom bokk ci moom mom conseil bu mom ñañ ñu doon dëngali loos mom bokku ci mom sa gudde okku ndong waye buñ la joxe nga ne ko tëndiix lek nga ko furax naan ko nek kaasu ataya tok du xol nit ñi nak karaw nak ak say bët ñooñu lañ wara waxal mm-hmm. nañ liggéey réew mi te bàyyi xaalis bi ñi sonal nañ ñu li réew mi muñ ta avancer ci dara muñ ta avancer ci tous. mère mm-hmm. buñ fi fal nga dag suuf ci jaay. xaajaloo ak sa wa dëkk sa sa say njaboot. bàyyi leen ay terrain yu du jeex. askan wi bëgg a dëkk amuñ fu ñu dëkk. ministre ñu fi fal jox la nombal tànk jox la xaalis ne la liggéeyal ngay dem di noos di dugg ci avion yi di dem ak ñëw di yóbbu sa njaboot ñuy vacances lan lañ fan lañ vacances jëm. liggéey bu du jeex lu ci am vacances. mbënd mi mbënd mi nekk fi. ah. waa Rufisque nga ne dellu waa Kër Masar waxaale wuñ leen. si Kambaaw. vacances nañ dem nag Marina xam nga Dakar luy seen problème. ah jamono ji sonn nañ ak taw yi teglo yii Ndeye Marie inondation kenn du ko xeex pendant l'hivernage waaye loolu kay sax du Ndeye Marie moo gënoon am ay jafe-jafe Touba yi ngi nii barki démb àjjuma taw bii paase ba léegi xale bi génn dëkk baa nga fees dell te waa dëkk ba bi ma seetaanee benn reportage TFM dañuy dëkk kenn du ca dëkk te amul ay canalisation mhm. c'est très dangereux waa ndox mi fan la yow yoon lañ ko fi wax loolu ñaata yoon lañ ko fi wax da di dem fenn di fa dagg di dëkk di dëkk ba benn un bon moment ñëw ne lañ leen lotissé suñ dëkk bi waaw ñu naan la fii non lotissé la fii lotissé la kaay leen jënd waa foo non lotissé yéen ñu koy jaayee ay yu baax génne koñ yi ba pare doog a dagg gis nga nag dañuy c'est ñoom dañuy ñëw ne kaay ñu jaay la fii non lotissé la jaay leen ko ba ngeen dëkk ba pare ñu ne leen kaay leen foofu amul jaay xam nga xalif bi danaan diw sëñ Saliou demal nga dëkk janatu parce que autant xam nga sécheresse mës na am Sénégal taw yi daaw doon bëri seen zone bekkoor donc boo fa demee dëkk da nga naan Touba bu tawoon 1000 millimètres sax du du inondé parce que ndax la su sangam mara mara mara mara mar ay at mhm. bu tawee te zone Bawol bu bëriwul woon taw mais réseau ba mais désert baa ngi nii daa inondé ah, France ngi ni barki dem dafa taw ba mu am ay Dubaay yi réseau voilà foo xamante ne yow boo fa juddoo mën nga faa def 30 ans doo taw moo taw ren xoola xoola désert ba désert ba ndox mi da koo xaaj donc moo tax à chaque fois da koy su da nga koy nee nañ ci kanam tuuti boo demee quelques années sécheresse dana am. waaw fii ak 2030. waaw fii parce que suuf si day wow. parce que suuf si day wow courant bi dafa bëri. léegi tey suuf si bu woowee nga gisaat gars yi dem dagg fii kay moom bu ta nga tegaat nga tegaat beneen 10 ans nab doo daal di commencé waat ñu ne la 10 ans bii de. ndox dana bëree bëree bëree bëree bëri Ndakaaru ah! Njaay moom dañ koy wax parce que dafa am zone yoo xamante ah! nii zone ndox la ñu dem dagg fa dëkk fa te ku leen ko jaay état mhm. nañ waxante dëgg nag mhm. mais man su may jënd kër fi may jënd damay xool fii place ndox su may jënd kër du ma ko jënd noor nawet laa koy jënd xam fii place ndox la wala du place ndox fii déeg la wala du déeg mais booy ñëw di dëkk foo xamante ne leer na ne fii yow leeru la bu tawee yow danga nga inondé wala déet ka ñëw dëkk waa léegi bu tawee. Mhm. foo jëm. mu koy génn mu ngay mujj génn rek. waaw génn. baa nga to dëkk ci ndox mi rek. looloo fa nekk ay Kër Masar ay euh, yëmbal ay. parce que yooyu autant Dakar foofu dex la woon Dakar presque île la woon. presque île la di doo dégg ñun la presque île du Cap Vert. il la woon c' est comme saint géej gi day màgg parce que Abdou Karim Sall def na benn tournée diggante nii Rufisque Mbaaw Petit Mbaaw Grand Mbaaw yooyu noonu mais li maanaam ñi nga xam ne ñooy saytu avancement de la mer ñeneen at bu yàlla sàkk géej gi dina randu lu toll ci zéro virgule cinq voire un yoo xam ne day dem ci biir dëkk yi waaw moo tax ndox mi bu tawee taw bu bari rek réchauffement climatique bu amee day mag maa yi bu ñu yëngoo tuuti rek dañuy gis ndox mi génn dugg ci biir kër yi bu tombeek hivernage nag moom tey nga dee. inondation bu amul fenn ngay am ci kenn ndax géej naan mais li ci solution mooy créer ay barrières gis nga li ma wax rek. Mhm. booy dëkk dafa am nooy dëkkee maanaam suñu maire yi di lotise dëkk yi il faut ñu wax ak ONAS wax ak ñi nga xam ñooy yëngu ci wàllum drainage assainissement. ñu génnee canalisation yi ba pare. ñu doog a dëkk génnee yoon yi installé tuyaux yëpp mu yëpp dem géej ñu doog a commencé lotissé génne ay mbedd yu yaatu def ci ay canalisation yoo xam ne du jaar ci digg bi du jaar ci digg bi de ci bu ci mbedd yi ci boobu rubeer lay jaar parce que on sait jamais mën nga dama benn instant nga bëgg a pavé koñ boobu ah. boo jaarlee ci digg bi tuyau bi mën na toj mais boo ah. ko jaarlee ci koñ mais xoola route nationale bi ñuy pavé xam ay canalisation mi ci suuf mais amul problème digg bi ay canalisation mi ngi ci. Kaolack dama lay laaj fii quartier yi njëkk ci Kaolack ay mbedd lan lañ am. yaatu na de mbedd 30. waaw du moom lañ am. waaw ñun suñu koñ moom lañ am yi fi mujj ci Kaolack ay mbedd lan lañ am. est-ce que du quinze 15 15. <laughs> waaw ñun moom. si ñiy lotissé la ñiy lotissé ñoo njëkk dëng. Ndeye Marie ñoom maanaam ñoom si ñoo dëng ba seen lotissement dafa dëng. lew na yëpp lew na lew na li ko wër yëpp. ay canalisation la. moo tax lew na pour mu am inondation du ko du ko def. Mm. te Kaolack li ma leen wax Valdiodio Ndiaye bu leen fàtte moo ko moo ko defar moom moo lotissé Kasnack daal di lotissé Kaolack te yooyu daal di suñ koñ te gis nga Kasnack mooy côté bi pas Idrissa gay dëkkee. Mm. côté boobu noonu dañoo ñoom ñoo njëkk am ONAS canal assainissement tegu ci ñun asalem saara bongare mais loolu day wàññi inondation ci dëkk mais ñëw rek dëkk nii. jëlal ma gaawaan ak Sam 2 <laughs> mm. xam nga parce que mbedd yu xat lañ yor. da ngay ñëw dug jaar ci mbedd ba foog ne da ngaa war a génn dugg ci kër. comme mbedd yaraax ay lotissement yu kenn xamut moom lañ def ci biir dëkk bi. moo tax mën a la quartier yi njëkk ci kaw lax inondé wuñ de. parce que lotissement yu normal ñoo fa nekk ay canalisation jaar fa. nit ñi dëkk normal moom dina du inondé. du inondé. ñaata seen mbedd yi rek xam nga cotiser jël jël ay suuf koñ ba tasaar nañ ko démb génne ko ay yoon yu sew si xam nga waa ngaan dañ doon dañ doon dañ doon yuuxu di nga la ngaa ko ne ñun duñ taale ngaan sa yer naan suñ suuf dafa baax keroog dam tawee taw bu rëy boobu noonu ma génn ci mbedd yenn koñ yi mu ngi commencé di am ndox ma ne leen gis ngeen ñu ngi tabax di yëkkati ay fondation foo foogoon ne mbedd la kër la kër la ay mbedd yu xata xata xata moom nga fay gis foo foogoon ne mbedd la rek doon fa jaar rek da ngay ñëw gis fa ñu yëkkati fa fondation. Mhm. yëkkati fa ay kër. gis nga mhm. loolu dafa baare ndox mi. léegi ndox yooyu ñu ngi taasi mbedd mi. Mhm. nañ dem fii di si quelques années. ndox yooyu dañuy dem ci kër yi dem ci kër yi. Ah, te suuf bu baax lañ yor de mais lu lotissement bi moo. baaxut amuñ ay canalisation en même temps ak quartier ngaan ni mu toll bokk na ci quartier yi gën a mag si kaw la. mais amul ay canalisation. du canalisation de assainissement ndax ONAS dugg na fa. Hmm. te ONAS pour mu dugg ci koñ léegi amut foofu. néegóol ma la ONAS rek ONAS am na benn waay bi mu ko soxlaa keroog suñu koñ xam nga dafa am ñoom fu ñuy yem. mais nag loolu ah ONAS warut am limite. xam nga xam nga ñaata ñaata lañ laaj kër gu nekk 300000 francs ah loolu nag kër gu nekk ñu ne la joxeel 300000. kër gu nekk maanaam bu fa yeggut yéen pour ñu yeggale leen pour yéen ngeen am ONAS trois amul kër gu nekk trois cent mille francs bokk na ci quartier yi gën a set ci am doole ñi am doole duñ am ah, ñi am doole moom dina am ñi am doole ñooy am ñi doole nag duñ am ñu suñ koñ boo ko jëlee boo ko jëlee ndemen di tàllal ba ba ba ba ca kàmb ya hmm. lycée ñëpp am nga jëlaat beneen mbedd ñëpp a am nga jëlaat beneen mbedd mais Ndeye Marie bu fekkoon ne quartier yëpp def nañ ko noonu ñëpp ñëpp ñoom ONAS. mbir yi du wàññeeku. waaye tamit dañoo war a wàññi seen mhm. seen tarif yi dafa bari ah tarif yi moom wax dëgg fa yàlla nañ sóoraale néew du doole yi segam ndox <laughs> segam ndox rek moo cher segam ndox cher waaw nañ sóoraale néew du doole yi te dañuy xool ba pare déggoo dañ koy étudier ba pare nee naa la koñ bi day am beneen koñ du am tey beneen koñ am na beneen koñ buñ buñ buñ jëloon na le ñooñu dañoo dem ba indil leen tiwo waa koñ bi kenn ku nekk war a verser hmm. ñu jël ko moo tax Sénégal moo bari ay cor ay corrompu. <laughs> ay corrompteur. Sénégal la bëri kay corrompu des gens corrompus laa la wa <laughs> nay mari ñu jël affaire bi dem jox ko beneen koñ. dajale xaalis jàmm ba pare. déedéet ñooñu jotu ñoo fay c'est-à-dire mun xam naa ne. am na ah, dañoo def demande bi. ñee def nañ demande bi ba mu génn bañ teg tiwo yi. yu mag yi. Mm-hmm. regard yi yëpp ñu natt bu bunt kër gu nekk ñu natt. ba ñooñu ñu war a am semaine boobu noonu dañoo jékki-jékki jël tiwo yóbbu ko fi nekk di gas waa koñ boobu di gis. <laughs> waaye tiit naa. moo tax moo tax moo tax affaire bi après. Sénégal reetaan na reetaan na reetaan ba sonn ma ne leen xoolal xoolal tas yaakaar bi. yow nga woo nit ki téléphone ba ñëw ba natt. xam naa moom mën naa bu nawet wàccee parce que ñoom ba léegi ñu koy topp xam naa bu nawet wàccee parce que gis nañ directeur ONAS cas bi kaawal naa leen ko hmm. comprendre nee naa leen lii topp leen ko parce que yéen ko moom te dañ koo jël. Mm. loolu mooy waral ne. waaw ndax yéen a def demande bi bay fi ñoom ñoo ko moom. Mm-hmm. te koñ boobu noonu jot na mu ñam assainissement. Mm-hmm. parce que gis nga ndox ndox euh, eau usée ci kër yi mën na indi feebar nawet. mën na indi feebar nawet te donc man li may wax à chaque fois rek nday roxee sall dëkk boo xamante ne kii ñëw di ut dalay corompe yow mi jël. Mm. yow yow tam ngay jël. ba pare corompe sa waa dëkk. ku soxla ku soxla daal di boxal. moo tax boo demee moo tax boo demee mairie dama la jox exemple nga dem mairie. Hmm. Euh, daal di daal di soxla benn extrait waa ji di la kële kële la ba ma ko joxee léegi mu génn nit ñi mën nit ñi nekkuñ fee. dëgg da leen a xam ma xam leen. Hmm. boo déposé huit heures dix mu génn boo déposé dix heures midi mu génn léegi fii lu fi jar ay boo déposé léegi mu génn léegi. comprendre nga ñu naan la seeka c'est-à-dire xam ah, dem tribunal la même chose. tribunal nga dem tribunal ñu lay këll këlle ci benn casier judiciaire boo xam ne warul def sax 24 heures. Hmm. nga dem ñu lay këll këlle. moo tax réew mi ñaar yi nga fi yor mën a dund fit. fit ak tontu bu ñu waxee benn nga wax fukk ba wër leen. de boo ko amul doo parce que bu ñu waxee li nga ne leen lii te nag gis nga sénégalais nday mari ma xamal la benn affaire gis nga su waxee benn affaire nga wax ko dinañ waa kii li may wax moom ko gën a maîtriser day arrière mhm. day def recul <laughs> moo tax booy dem fenn iti jël foofu ba pare door a dem naa ko waa police de duñ jël duñ duñ jël sa sa sa papier yi ndax huit heures mën na leen xalaatum ko huit laay dugg damay jàngi te duma retourné waat fii di ñëwaat di ko indi da ngeen di mën a jël papier bu jëloo leen ko ma dénoncé leen ndax ñoo leen fi tax a taaj ñoo leen fi taaj suñ xaasi lañ leen di fay jël leen ci yoon man damay jàngi ñu xool ba si jàkk dama indi <laughs> jox 13 heures danga ko jël si 13 jot ma ñëw ñu ne génn quinze heures teg ñu fa te naan kese ba police centrale dugg na fii ma duggaat bi ci biir bureau commissaire na ko treize heures ngeen ñu waxoon te fii laa ñëw ci suba sept heures demi ngeen ne du ngeen jël sam papier tant que huit heures jotut comme que nag ci heure ngeen di jox dox dee leen jox nit ñi seen papier yi par heure. mooy yoon de. mu ne yow plan nga man leen dara étudiante la may jàng waaye daal man sama papier treize heures ngeen ma waxoon da ngeen ma ko jox. fii ñëpp ñëpp nag di kaas mujj gi ah ma am mbooloo nekk te nit ñi kenn ko ne am nga. loolu naqar am na ñoo soof dañuy bàyyi ba nga ñuy <laughs> ñu jóg teg seen añ di añ ñu leen du ngeen fi añee fekk joxoo leen ñu suñuy ay papier treize heures ngeen waxoon du ngeen fi añee da ngeen ñu jox suñuy ay papier ñu toog tuuti seet oto bay ñëw ñu neen waa kay dañuy xaar ba nga kaas <laughs> doog a jug xam nga <laughs> waroon naa war a teel a jug kaas waaw parce que parce que am na loo xamante ne parce que am na loo xamante ne du ko dama koy du ma koy dama koy faral di wax ah. mooy nee naa la booy dem fenn fexeel ba maîtriser loolu mhm. boo ko maîtriser rek da nga xam say droit ak say devoir. xam ne la fi te dund ci Sénégal gi. te xamoo te te te te te ni taxul ñu ragal leen. Mm. déedéet seen liggéey la ñuy def. seen liggéey la ñuy def seen liggéey la ñuy def respect bi la parce que tenue bi personne moom ah. Ah, tenue bi moom mooy mooy suñu institution. mais yaa de gis nga sénégalais moo mën a abuser ci yenn yi. Mhm. ak loo ko mënti jox pouvoir boo ko mënti délégué. maanaam bu ko pouvoir bi ëppee doole rek. waaw mu commencé abuser ci. Mhm. commencé di wanewu comme ni ngay joxee daa soxo tey jii dénk ko benn kuréel moom il s'en fout moom day def liggéeyam pare ñibbi mais am na ñoo xam ne dañuy waa xëcc costume xoggali cravate commencé def ko moomeel nag. foog ni un du ñëw ñu dégager leen ci port ci poste boobu. xam nga xam nga Ndeye Marie nee naa leen ku leer nekk sa xol. billaahi du ma la jox Sénégal. Sénégal ku leer nekk ci xolom xolam billaahi du bugg ko jox xam nga lu tax ah, Disa Pereira daf maa mos a wax lu garaaw mënuma TFM du ma fa toog ma ne ko te mënuma damay def sama liggéey dem ñibbi loolu moom moo ko njëkk a jàngal waaw ah, man de nekk naa ba jigéen hmm. ñaari yoon laa gis xaw ma ñett yoon te pourtant fa lay liggéey day def reportage nga koy dégg lépp mais doo ko gis invité wuñ ko palaata bokku ci dara day def ay reportage am bu waree dem rédacteur en chef bi woo ko ne ko yaa war a couvrir li mu dem couvrir ko bu ñëwee def bu ñëwee dóor dóor li muy dóor bili sapoom bàyyi ko fa dem yoonam mhm. waa léegi waa léegi yow mën ngaa liggéey ci entreprise bi 30 ans ku lay xam kenn waaye boo dikkee toog yaa nga restaurant yaa nga café mhm. luñ wax sa yoon nekku ci mhm. nga dugg ci lu ne nga dugg ci diw sama xarit di sinap lu ne nga dugg ci mooy mooy li mooy li porte parole des xalif général des mourides ah Serigne Bass surtout les fii man waxuma la nga jël sa téléphone manipuler de ndax Touba man dem naa fa yor sama téléphone def direct Euh, am ku ma doon woo waa ji kii ma yénee sama carte moom nga ko mu ne ma ah, tu travail hmm. man ci mausolée maa ko njëkk a wax nit ki respecté leen ki tëdd ki tëdd mhm. benn waaye dafa ma mos a wax lu garaaw mu ne ma sëñ baara doomu al doomu doomu sëñ Tuuba dafa am benn waaye bu mos ñëw di ko ziyaar mhm. di sob njëkk ba buñ la buñ buñ la jébbalee suñ borom ba pare dafa am benn mali kii bu kii bu benn euh, dara buñ bind alxuraan buñ lay muur kooku ñëw muuri ko dafa jékki-jékki ay pes la gis. dootu ko defati. boobu sëñ Fallou moo toog ci xale bi sëñ Fallou ne leen bàyyi leen ma baara baara daa tàng ba dafa tàng fa nekk bàyyi leen ko mu tëdd jàpp mm-hmm. ñaamuram. Mm-hmm. léegi nag da nga ciy gis kuy luwa iPhone 11 mooy li may wax fii nday Marie. xam naa ne boo demee ñàkkul ñàkkul sëñ Bas dégg ma. Mm. li ma fi wax àjjuma lii laa fi wax. da ngay gis ku luwa iPhone am Ndeye Marie. maatu pousse ay wee yoo xam ne mën naa reen di fukki nag. léegi <laughs> comprendre pousse ay wee yoo xam ne. yooyu mën naa rendi fukki nag ci benn yoon. di xapp xappal. waa du yoo xamante ne mat na 2 du am benn pudeur fii muur sa yéen. du du am benn pudeur bàyyi ndeyam bàyyi baayam du leen sax tàggu ni tër gàddu ab valisam. dem yoonam yóbbu valisu yére màggal. waa yow dama lay laaj yow koy concurrence am. naan màggal gi ren ni ma ko yenoo. te gis nga murit yi ñoo yàq yoonu murit bi. billaahi barke Muhammad hmm. murit dafay valoriser boppam. nit da ngay am fulla jaamu yàlla ak bernde lañ wax booy dugg Touba loolu lañ bind de. Mm. waa jaamu yàlla. jaamu yàlla ci nan la du da ngay julli jël sa kurus di di wird. mais iPhone ngay téye dugg ci kii mais mais mais mais kilifa gi tëdd walliw gi tëdd respecté ko. nañ waxante dëgg. boo ñëwee ñaan defal. boo ñëwee ñaan amul benn yéene ku ko dem sa yoon. Ah, li may wax rek a chaque fois man sama mbokku jigéen ñi toujours ñoom ah, laay. ñoom rek koy def nag ñu bari ñenn ñenn ci góor ñi moom à côté laa leen di tegee ñenn ci góor ñi dégradé dégradé yow war nga ko wat ñëw tim kilifa nan dang koy siar la nga ñaan ba pare lay jël boole la ko amul japp laab dara am na ñoo xam ne bañ gëjee bañ gëjee bañ gëjee laab xawma ñaata at la parce que xamuñ sax ni ñu sangoo set muy ci góor muy ci jigéen ñi ñu jigéen ñi nga teg euh, sa bopp boo xamante ni genn fas moo ëpp genn fas nga teg nga teg nga lëmas ko si biir bañ ñu bañ bañ ñu ko doo ko lëngas doo ko yóbbaale si jumaa ja waaye wee ya ngay teg xef ya ngay teg make up ba hmm. rosaaya waaye ab njàpp nan la àndeek ab maquillage njàpp nan la àndeek maquillage ah, jigéen ñu tegal la ay chart yoo xamante ne leer na moom nga war duggee si jàqa nga teg say ongul nga duggee neneen yow nu la neex xar fant boo xamante ne nii moom mun naa lëngëre fépp moo tax kuréel yi nekk Touba li ñu jël man neex na ma muy màggal muy jour ordinaire. ah jour moom moom na yore. fant boo xamante ne nii kenn xamu. mais dañoo dégg waa ñooñu kanam man fantu kanam man ba mu génnee man calaa laa ca laa noppee man. xewoon na bi dañ koy xewalaat waa Ndeye Marie Ndeye ñan ñoo koy def gis nga tey Tidiane biy dem Touba waxuma kenn sax maanaam ki ki yar këram. muy dem tuubaa lu correct lay sol. tey Ndeye mari bu doon dem Touba tey di màggali. billaay bu demee moom mooy nekk di wirdu di ñaan sëñ bi sax moom moom lay ñaanal sëñ bi. pour nga boo bëggee dégg dëgg bëgg dégg dëgg est-ce que yi dem Touba quatre-vingt-dix yi. lekk ak naan lañ fa yóbbu. ak sinap ak solo ko summeeku ak sinap sinap diis yi dong ñoo si dis nga diis yi sax si bés màggal bi la ñuy dem ñibbisi si si bés màggal. très bien fajar gi la ñuy topp dem ziar. suñ demee dinañ jàng alquran daañu jàng xasaayit daañu dem ziyaara ji. te sax du force ñoom nag jàpp nañ ne maanaam dem ziyaare bi. force mooy màggal bi. Mm. te màggal bi du dem ziyaare bi boroom màggal gi lan la wax jàng leen alquran jàng xasaa it berndeel ma delloo njukkal sama borom. mais booy dugg Touba loolu lañ lay wax jaamu yàlla ak berne pourtant. loolu mooy màggal gi de màggal gi yoor yoor la diggante 10 ba midi kese jeex na loolooy màggal gi léegi diggante 10 heures ba midi boobu noonu yow yaa ngi fay sangu yaa ngay ciib ciibal yaa ngay solu yaa ngay mag yow bala ngaa jékki jot treize heures nga ndékki quatorze heures quinze heures bu dix huit heures yàq añ yi nga añ guddi nga daal di oosa ay yenn coro yi nga xamante ne nii ñii iyoo seen yenn far yi nga ñu daal di nag seen kuréel nag ci biir kër gi nag fas yéenee jàng seen ay xasaayitu bopp yi nga xam ne ñoo ko bind ñoom ay poème d'amour yooyu noonu waaye sëñ bi déggoon ma loolu la ñuy màggalee sëñ sëñ Munta sëriñ euh, Bass Abdou Khadre lim la wax. joxe na mi ngi <laughs> moo la ko ko gën a xam xam na tax mu xam ko. xam na tax xam ko parce que xam na ne kër yi kër yi. li tax boo gisee is bu tarxee yi gars yi di leen xaw a sax kii nii parce que dafa am luñ gëm conviction lañ gëm boo ca bokkee sax doo sol yére tubaab dafa am loo xamante ne moom lañ gëm te yoonu sëñ Tuubaa gi ñuy màggal di jàng mm. alxuraan di ko màggal di samp ay jàkka ak jumaa ci dëkk bi bu ko sa moroom doon def waaye sa morom lan lay def ay eh, ma alo màggal gi dama bëgg def ba mu baax valise yu yére laa bëgg a yóbbu. tailleur kay moom fi mu toll nii boo ca dem nga xat ah? xat ba fees pour lan pour lan su waxee ñu ne màggalu sëñ Tuubaa gi kay sangam nag di ci gis koo xam ne jëkkëram mënul sax man na ma kaay doo ñëw ñu màggali ma ne ko ah man de moo wax dëgg yàlla gëj naa màggali ndax maa bëgg a yóbbu mënu ma waaw yéen ñun foofu dafay neex waaye dañuy otes de ma ne ah, xanaa yaa may xotti man xottiwum sama yére yii daal moom ma xam ne moom am naa ko. dinaa ko yóbbaale ma paase ba mu baax. ma sol te xam naa du weesu ñaari yére ndax solo ak sumeeku gi talu ko ndax daaf dañoo nekk ci nawet te Touba daa taa. <laughs> talu uh, yar bu dee dinaa dem daal ñi nga xam ngi dem màggal ndax jub si na presque. Ah. nañ bàyyi xel li ah. Serigne Abdou Khadir wax yar. maa ngi koy wax xam moom maanaam seen dégg-dégg moo fat seen seen seen tempa yi ñoo seen turu seen ora yi ñoo fat xam nga ma xam nga dégg dara déggoo lu ma la wax am na benn màggal boo xam ne maa ki ma àndal dama sol nii benn super sa di dem dugg noonu na xaaral ma ziar moom mu sol temps yooyu la fi déchiré xew waa ji woo ko na ko sa dégradé bi ak sa désiré bi déwén bu mu fi ñëw dinaa la bàyyi ndax ki nga àndal daa sollu correct moom laa rus waaye yow déwén lii bu ko fi indi <laughs> kooku ne ko kooku ne ma kii rek saaga dafa ba ne waaw parce que dafa am yëre yoo xam ne moom ngeen war a yóbbu ngeen comme romb nga boo boo rombee say waajur waxuñ la dara mm-hmm. da nga am koo dajal mu wax la dara nga am gàcc waaw loolu de am na mm. affaire ci kër yi lañ koy jëlee de kase bàyyi leen xel ci message bi Serigne Bass mm-hmm. Abdou joxe na leen dëgg de màggale leen yóbbu jaamu yàlla mm. dem ngeen am ci yoolu yàlla bi mm. sëñ Touba kontaan ci yéen sëñ bi kontaan ci yéen ndax liñ mën liñ xamul mooy que ni nit génn nit génn àdduna da nga foog ni lii xew ci kaw suuf yëpp mi ngi koy gis ñoo ñoo la gën a xam li xew xam nga ñi ngi koy gis benn par benn luñ nekk mais moo tax dama li nga lekk ñu may reetaan ma ni leen yomal xiyaam di ngay <laughs> gis taalibe bu jàpp ci mbuubu sëriñam ah. pour mu ramm ko mu na ko baal sama mbubb non dañ ciy ëppal. imagine fa ma jaar jaaroo fa la ko doon man maa ko teg sama bët on interdit de fumer à Touba. nga gis ko jënd fii paquetu Marlboro. dem ba biir Mbàkke. Mm-hmm. waaw Mbàkke lañ koy defee lépp Mbàkke lañ koy defee comprendre nga toog benn kër sëriñ di gis xet ga di ci sëriñ bi génn ne ah sama taalibe bi def lii de mu ngi may tooñ te baalu ma ko ndax borom dëkk bi da koy bañ. Mm-hmm. ne dañ naan la vérité en deçà des Pyrénées. l'erreur mhm. l'au-delà boo demee dëkk jàmbur la ñuy bañ accepté ko. accepté ko waaw. bul bañ ñu yab la. ñoo da lañ koy defee Mbàkke daal mooy gëb la fa lañ koy defee man ba ma njëkkee dem oto bi ñëw escale Mbàkke mu ne diw mu naa man ko xanaa fii mooy Mbàkke mu ne maa lu tax nga laaj ma ko man ko ma koo yàgg dégg ñëw gis ko <laughs> gis naa ay dangal gis ay mees gis ay cigarette man ko xanaa fii yaay Mbàkke mu ne ma lu tax nga laaj ma ko man xumaa yàgg dégg lii ñëw gis gën a moo ko waroon de euh, newuñ ñi sax parfois ñiy déglu waxuñu pour ŋàññi mais moo waroon gën a nekk dëkk bi gën a ordre maanaam correct mhm. avant pour avant avant ngay dugg Touba foofu nga waroon a njëkkee ba pare doog dugg Touba moo waroon nekk njëkk bi dëkk bi njëkk a ordonné boo xam ne lu ñuy bañ Touba duwul bi la ñuy bañ biir Mbàkke ah parce que lépp fara départ en ci cas daal moom yéemi na lépp lépp war nañoo bàyyi xel ca kañuy fekki de kañuy fekki daal moom di ko di ko di ko di ko njukkale yàlla di ko delloowaale ngërëm yàlla nga xam ne day màggal suñu boroom moom suñu boroom lay màggal. en tout cas daal loo ci mënti dégg. oo leen ne leen kaay leen màggaleel ma sama boroom. liggéey leen ñu delloo ko njukkal. waroon nañoo xool ca moom. Hmm, moom de setoon na correct woon na. juboon na. maandu woon na musul wax lu génn yàlla waxtu julli du ko raw. waa yow fu la waxtu bi fekk tisbaar ga tàkkusaan nga fa la lay fekk timis ga yëpp fa la lay fekk lépp te borom dëkk ba moom loolu yëpp da koy bañ yow da ngay dem ba Tuubaa ne dangaa màggale yow sa jëb yi bu soog ko këpp ci suuf ni nga dem ba ñëw doo julli waaye ku këpp sa jëbi ku jëkk këpp sa jëbi ci suuf sa fa dëkk da këpp sa jëbi ci ca ca ca Tuubaa exception ne comme Tuubaa laa ñëw xaar mu julli waaw déggoo la waaye sama màggal gi am na ma benn njëriñ. <laughs> non Marie dafay Marie danga may ñaawal. waaye yow Marie yow ku jàpp sa sa kanam gi peinture ko jël okor def ko si. yaa ngi dégg jël geenu fas këpp fas ci jël euh, su def si say wee waa léegi yow nooy jàppee nooy jullee. doo ah? jàpp kaala gi ngay muuroo nu mu lay jotee. doo jàpp doo julli. yére ya ngay sol yëre ya rek ñoo njëkk incorrect yére yoo xamante ni sa yaram bi jarutoon sol yére parce que dañuy wax ne euh, sëñ Touba da doon wax ne mujjitu àdduna ci mandarga yi bokkoon na bu ñu demee ba nit sol yére daal di rafle da ngay sol yére ba pare parce que dañ naan kii xanaa bàyyiwul ay seen kër wala kii amul ay yére moo tax mu sol yi que yow da ngay sol yére ba pare sa yaram bi yëpp nekk ci biti lépp amul fenn fooy bàyyi mm-hmm. mais loolu jarutoon ngay sol yére waa kooku nu muy jullee mari ba ci góor yi ba ci góor yoo xamante ne nii la ñuy sol jarutoon sax ñuy sol yëre ñuy nelaw ak a yeewu ah amuñ benn njëriñ di liddeeku rek nag ci kër ba séddale wuñu joxe wuñ bernde ñoom ne ñëw ñi encaisser rek ñoom nañuy lekk ba suur bu dem seen saak naan ba mandi keneen bu romu ñu rom rom dugal ci saak fi ak sàcc gi dem ci wañ bi jël ginaari jàmbur yi ñu defal ba pare pour seen gal da ngay teg sa portable ñu ne ko tuy sàcc li ma nga tag sa chaîne or ñu ñëw loqati dafa am loo xamante ne maa ngi koy reetaan sax gis nga gis nga màggal yi hmm. ñoom waa baa ñoo la gën a xam ñan ñooy seen taalibe ak ñan ñoo ñëw pour sàcc yi. ma ne kur goo dem xam ah, ne taalibe ak sàcc yi. parce que gis nga boo gisee sëñ Bass mu teel a àddu lii te safar bi dana tijji dimanche bi boo gisee mu ah, teel addu àddu lii parce que day gis ñu ñëw hey jàll leen hey hey. téye leen seeni poos mës naa ko wax benn waaye xoolaat ma ma ne ko ku dugal sa téléphone sa poos ñàkk nga ko ñoom ñii di la ko wax ñoo koy jël kooku naa ma noppil ma ne ko noppil ma da ngaa bëgg jël sa tél <laughs> sa téléphone dugalee ko ñu jël ko téye leen seen téléphone yow da ngay jëw nii gis nga taseeg taseeg taseeg gendarme yi taseeg policier yi ñu jàpp ay nit di leen pamti pamtee lu mat fukki yoon yoo xamante ne ni da ngay taseeg ñoom hmm. yow doxagoo sax 500 mètres Mbacke dama am dafa am benn yóbbante bu ma doon yóbbu benn màggal man boobu maa ngi def première man ñu ne ma ñaari Baay Faal man dama taxaw rek ci ci côté mu na ma taxawal ci côté babe bi fi xale yi groupe yi bu ñu màggalee ba ci suba sax ma ne ko gaawal damay jël oto dem ñibbi dama taxaw rek police bi ñëw fekk fa ñaari waay jàpp yóbbu mu ne waa kii tax ñu ne ma civil la police civil la. Hmm. mu ne ah man de xaaral ma def balaa ñu ne xam na ñi mu war a jàpp yow <laughs> la xam na ñi mu a jàpp ma ne ko ñii mu ma ñii mu ma ñii ay tafu ay dañuy tafu sartu kalpe yi mu ne mu ne ma tafu moom xam na leen xam na ne mu ne ma dañoo tafu benn benn jigéen hmm. wiir yi ñëw taxaw fi dina mel ni ku deful dara hmm. mais ma ngi leen di pes pes moo xam ne dootuñu defati de ma ngi leen di def kooku naa ko lan laa def mu ne ko del posetu indi leen indi li ngeen jël indi li ngeen jël kenn ki naan ko kiyee ko jël ki naan kiyee ko jël waaye balaa ñu yegg ŋaam moom xam naa ne bu dee ŋaam <laughs> ko de te te nday mari nday mari damay damay faral di wax euh, booy booy surtout surtout genre xale góor gu ci mel ni man nga xam ne ay bul faale lañ mën nañ yóbbu sax benn yére ñëwaat parce que la sëñ ba wax moom laay defi mm-hmm. parce que bëgguma faa jëlee bàkkaar nañuy suuraale loolu tamit mën nga di dem ci ab bërëb jëlee fa bàkkaar ah, bëri na ah, ci ah, parce que munuma dem munuma dem war a dugg ci xabru ku tedd ki di comporté woon neen mm-hmm. munuma dem tuubaa di comporté woo. bàyyi leen sinap yi ci biir zaw yi xabru yi. c'est pas bon yàgg naa ko wax. biir du année bii du année bee yàgg naa ko wax. sëñ Bas moom xam naa ne sama sama xel mi da koo këf démb dama koo yàgg wax démb. bari te bu ñu xamoon gis nga bu ñu xamoon ña tëdd foofu. bu ñu xamoon. Ah, man de Ndeye Marie. dama dama di sinap di sinap gerte gi sinap bi sëñ Touba. dafa am lu mu mos a arrivé fii Touba te lu nekkul lu ñuy wax ci ci antenne. Mhm. mais bu ñu xamoon. yenn yi duñ ci dugg lay duñ ci dugg buñ xamoon ña tëdd duñ dugg ci yenn yi te suñ xamoon sax lay dinañ fermer porte yi ñu taxaw si biti bu ñuy ñaan ñu ñaan génn dem seen yoon hmm. lu garaaw laa lay wax te dañuy taxaw man ci màggalu euh, poroxaan gii nii hmm. dem naa poroxaan dem ci xabru maam jaara gis nga bi ma duggee man dugg naa xam naa charte nu ñuy nu ñuy nu ñuy duggee nu ñuy toogee si xabru nu ñuy ziyaare mais maa ngi tase ay jigéen ñoo ngi wax li ñuy wax mu ma def ree ma dugg man def lu may def bi may jóg ba war a génn am beneen meer bu nu ma puusal maam jaara day fatawu ak turandoom ma ree tuuti ma tourné bëgg ko bëgg ko tontu ma ne déedéet parce que am na nit fu muy toll ci degré jaay mm-hmm. soo waxee ak moom danaa mm-hmm. dangaa réew mm-hmm. xaar ma bàyyi ko ma dem sama yoon su doon feneen sax wala mu génnoon sax dinaa jéem a wax ak moom. Hmm. mais comme que si biir xabru fii la xaar ma bàyyi ko. mu wan na la maanaam ñu bëri tey ñu ngi dem. Hmm. di màggali ji di def yenn yi. Hmm. te xamuñ parce que kooku xamul da nday mari du dafa bon. mais dafa xamul ah, xamul. parce que imagineel nga ñëw ci xabru. waroon a ñaanal ka fa tëdd ñoom dañoo jàpp ne ka fa tëdd nga war a ñaan ñaanoo ko ne suñu borom ngay ñaan ci barke ki fi tëdd. fi mu nangul la. mais ñoom dañuy jàpp ne. yow moom nga war a ñaan wala yow danga fa war a nekk di jooy wala da nga faa war a nekk di yàgg wala yenn déedéet. ñu fekk la fa gerte rek. imaginer gis nga xabru yooyu noonu ngay dem ñoo ñu tëdd ci armeel yi ñoo yem. ñoo yem moo déggoo moo tax ma armel war leen ñaanal. même chose xabru boo fa ñëwee ñaanalal ka tëdd. Mm-hmm. yàlla yërëm ko. yéesal mais ñun fii Sénégal sax ragal nañoo wax ne. sëriñ bi yàlla na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram. waaw loolu a wax ragal nañoo wax loolu. loolu nga war a wax nag. ñun ragal wax ne. sëriñ bi yàlla na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram nit la. nit la yàlla moo ñu bind. Hmm. da nga xam lan la musa def lu ko rëcc si àddunaam du parce que bàkkaar yi yemuñ. Hmm. am na yoo xam ne dañoo mag am na yoo xam ne dañoo ndaw yow da laa leer parce que pourtant moom nit la comme yow matut. Hmm. yenn saa yi mun na juum mais yow da nga gis kilifa gu génn àdduna xam lan la ñuy wax yàlla nañu yàlla taf si barkeem yàlla yàlla na yàlla yokk leeram mais doo mus dégg kilifa moo tax fii doon fi kilifa diine danger la ci Sénégal. Mm. parce que duñ la mus a ñaanal yàlla la yàlla jéggal sa ay bàkkaar ñemewuñ ko amuñ fitam parce que boo ko waxee sax ñu saaga la foog na yow da nga kaa manqué de respect pourtant manqué woo ko respect yërmaane nga ko yéene si suñ borom mm-hmm. parce que ñun ñëpp ay nit lañ mm. donte moo la ëpp dëgëre. ci yàlla yàlla. dente sa wasiila la te moom nga topp pour mu jëmale la ci yoon bi nga xam ne moom la mm-hmm. suñu borom bëgg mais nag lu tee nit la mais ñaanal ko li ñuy ñaanal comme suñu yeneen moroomu nit yi bu ñu génnee àdduna mais ñun fii Sénégal ragal nañoo wax sëriñ yàlla ko yàlla jéggal bàkkaaram ay man mii man mii di ko wax nii sax fi mu toll nii su ma génnee attan nañ maa saaga <laughs> ñemewuñ ko en tout moo tax doon fi sëriñ danger la de. danger la bu rëy danger la moo tax ku ci toog ku toog rek nga commencé mu gis di yoññox parce que yan bay diis ci moom tellement que. parce que liñ koy liñ koy yen. liñ foog ne moom la war yenu. fekk ne waroon ko woon a yenu waroon oyof la woon. ci moom Sëriñ Muntaxa di wax nee na kuñ ne kaay yaa fi sës mooy yaa sës yi wax na ko bi Serigne Serigne Serigne la ko wax parce que ñu ngi xaar kañ la kañ la xalif général bi di génn ba keneen wutu ko loolu ñu ngi koy xalaat fi mu toll nii jamono bi am na ñoo xam ne bind nañu resi bind nañu bi rek moo des bis boo faatoo ñu defal la bi nga faatu am na ñoo xam ne bindal nañ la resi yàgg na waaw comme a Abdoulaye Wade ba mu fiitee rek waaw bindal nañ la ko yàgg na mm-hmm. date bi ngay faatu rek la ñuy xaar de génn rek ñu bind moo tax Ndeye Marie Ndeye Marie comportement baax na ci doomu aadama. dalay cest di dire dalay dalay yóbbu fu sori le temps passe vite. Mm-hmm. te li oustaz Samba Diallo yàlla na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana. Mm-hmm. te jéggal ko ay bàkkaaram li mu doon wax naan nga def fi lu baax nga def fi lu bon boo dee dinañ ko nettali. Ah, ah. donc moo tax moo tax moo tax booy dem ci yenn bëri yi ñu bëri dañ may laaj ne ma yorata doo màggali Touba mu ne ko yéen da ngeen neex. ma dalee màggali léegi mu mat 15 ans mm-hmm. ñu ne ma noonu duñ lay gis ngay <laughs> xoolal xoolal xoolal xoolal ji woo xamante ne ba. bu doon dissertation deux laa lay may deux. xamul mooy mooy ni sëñ Touba da leen tégg dafa am ñoo xam da leen téggal yenn yi. Ah. Mhm. nee na leen sama màggal gi fu waay toog. mun nga ko faa def ah. parce que du leen lu dul jaamu yàlla. Ah. julli jàpp ñaan suñu borom jàngal ma samay xasaayit ci sama barke. parce que xasaar yi dama cee tagg suñu borom. Ah. delloo ko fu njukkal jàngal ma ko. te te te te Ndeye Marie. kese ah waaye loolu yow yomb na di. te Ndeye Marie ba pare ñaan jàmm ci réew mi am na xasaar yi suñ Tuubaa boo xam ne. Euh, jour bi ma koy xasaar bi man mokkulu ma koon dama ko doon seetaan nii rek ñu di ko traduire mu nekk xasaar yi bu neex. Mhm. ay ñaan yoo xamante ne nii. yow da toog fii cent ans sax doo xam ñaan boobu nan nga ko war a décortiquer. Mhm. jàmm bi muy ñaan ci réew mi. koom gi mu ñaan ci réew mi te loolu yàlla mu ngi koy wàccee bu baax ci dëkkam bi loolu ku loolu chaque jour war nañ ko mën a mën a mokkal di ko jàng ah. ñaan yoo xamante ni man dama da doon daw sama yaram bi ba man dama doon jooy xam nga si jàmm bi nga xam ne yéene na ko umma islamique bi yéene na ko senegal waaye loolu yow nga siisu lànk rek ne doo ko def hmm. fu ñu koy defee te Ndeye Marie sama classe gi moom nekk toujours sinap barki sëñ Tuuba <laughs> su ma nammee nangam barki sëñ tuubaa di tooñ sëñ Touba. Eh, Ndeye nit waatee sëñ Touba te ma ngi ca xol ba. di ko tooñ ñu ngi tooñ sëriñ bi. nit pour ñoom koo waatee rek kooku moo nekk sa xol. gëm-gëm. gëm-gëm la ça se ah, ça ça ah, s'éprouve ça se ah, tey benn affaire. Mhm. ñu ngi tooñ tey sëriñ si. Mhm. ñu ngi tooñ tey kilifa diini yi. te eh, loolu xam nga lu ñu ko yóbbee suñu ñàkk a xam gis nga waat. waat ñaar la ñaar. Mhm. ñaar. bi nga xam ne danga koy kafaara ak bi nga dul kafaara. Hmm. te benn la tamit maam buñ ko xaajee ñaar la waaye benn la. ci suñu borom rek la ñuy waat. Hmm. waat bu dëggu si suñu boroom billaahi hmm. wallaahi. wa mooy waat. gis nga képp kuy waat ci sëriñ yaa ngi bàkkaar. yaa ngi bàkkaar de te yaa ngi leen di tooñ. te gis nga lool tamit dama fay xaw a wax suñu xalif généraux yi. ñu génn di wax ak askan wi. Mm-hmm, mm-hmm. di leen leeral ci yenn points yi sew yenn yu sew yooyu nga xam ne ñu ñu ngi leen ñu ngi ciy gaañ seen bopp. ñoom parfois sax dañu war a au presse yëpp ñu ñëw toog ñu ngi ciy gaañ seen bopp bu baax a baax ak lii. ndax da ngay dégg nit ku naan la su ma waatee ci sëriñ diw rek xamal ne wax naa dëgg. fàtte na yàlla jël na sëriñ diw teg ko si palaasu yàlla yaa ngi dégg bakkaar bi mu def. Mm-hmm. nee la su ma waatee si sëriñ diw rek wax naa la dëgg. mu ngi bokkaale ndax jël na sëriñ diw teg ko si palaasu yàlla. Mm-hmm. te yàlla rek si moom rek la ñuy waatee li nga xamante ni dëgg la te muy waat goo xam ne kenn du ko. tey lañ gën a mën a waat ci yàlla ci ay nar de. waaye da ngay dégg ku naan la billaahi te du wax dëgg lam cay teg du dëgg barki sëriñ diw te la muy wax du dëgg di tooñ di tooñ sëriñ si non sëriñ si ñu ngi ci côté bu ne ndax dégg ku nettali benn xiste ci sëriñ demaat ci keneen mu nettaliwaat même xiste bi ci noo xam ne bokkut ci wax boo xam ne soo ko déggee da leer na lii du dëgg. Mm-hmm. ñu ngi leen di tooñ. nañu bàyyi sëriñ si ñuy tooñ loolu doyut musiciens yi damay wax ak ñoom nañ bàyyi sëriñ si ñuy dugal ci seen musique yi. Mm-hmm. alxuraan ji nag. jàpp baati alxuraan yi di ko dagg. Mm-hmm. nañu bàyyi aay yi araf yi ñuy damm. alxuraan kenn du damm ay arafam déedéet kenn du damm ay arafam gis nga. dañuy wax ne soo déggee aaya nit kuy jàng sax aaya bi tànk daanuwut bul wax ak moom mhm. léegi ñu jàpp aaya yi di ko dugal ci seen musique yi jàpp asida mag yi di ko dugal ci seen musique yi te naan kan moo bëgg sëriñ diw yëkkatil sa loxo gis nga yooyu bu ko bàyyiwul ak i kër loolu tamit damay wax suñ sëriñ si nañuy génn di wax ak askan wi nañu bàyyi xasida mag yi ñuy jàpp di ko tëggee ay ndënd ak i tama mm-hmm. xasida tëggee wuñ ko woon ay ndënd ak i tama kenn fecc ko ah, am na si xasida yoo xamante ne nii yonent bi salaa salaam lañ ciy tagg mm-hmm. am yoo xam ne yàlla lañ si tagg am na yoo xamante ni si suñ société bi la ñuy wax non xamala la dañoo war a xam lu xasida xasida yi di tekki de waaw da ngay ñëw di jàng xasida xasida du sëñ Tuubaa kese mu jënd xasida mm-hmm. alaaji Maalik li mu bind xasida la xasida mooy poème. mooy taalif loolu la xasida di tekki hmm. mooy poème. comme ñi nga xamante ni nii ñoom français lañ xam. Hmm. xasida mooy poème nañ ci bàyyi xel. poème yooyu noonu am na si ñoo xam ne ay lyrique lañ. ñoom ci sentimental la ñuy dox seen sentiment boobu xam nga si lim jëm ci yonent bi saa salaam ci moom rek comme Baye. Baye xasida ba mu bind bind tëgg na ci suñ si yonent bi saa salaam. Hmm. moom nee na man maay moom. bu seqee tànk ma seqi tànk. Mm-hmm. bu xëppee ma xool. bàyyi wax loolu nee na moom moo yonent bi ci kaw lan bu tegee fu mu teg tànkam ci wala teg tànkam ah. fu muy xool fa lay xool. Mm-hmm. lu muy def moom ci loolu lay roy. kon kooku mooy moom ba si ñun ñi noonu lañu ñu war a mel ñoom dañoo tagg yonent bi tag yàlla gërëm ko ci bind bi mu leen bind ci jullit bi mu leen def. mais pour waa ñu jàpp xasida yi di ko dugal ci seen musique yi xamuñ sax lan lay tekki nga koy am foofu mais yabaate la ba pare ne yow jullit nga ba pare te yow bu taxawoon ne la farata njàpp ñaata la doo ko xam suñ ne la woon yi doo ko xam xamoo tus ba pare taxaw fii naan jullit laa damay way yonent bi damay way sëriñ bi ba pare yàq wala nga wàññi noo koy defaree xamuñ tus xamuñ tus ci dara mm-hmm. fii ñaata nit ñuy julli xamuñ nu ñuy defaree suñu juumee nan lañ koy defare mm-hmm. xamuñ seen jàpp suñ juumee nan la ñuy defaree jàpp xamuñ ci dara xamuñ ci dara tus te parce que jéemuñ ko jéemuñ ko xam ba pare ñun ay jullit lañ gis nga jullit bi nga xam ne moom la ñuy woote dañ ko war a gëm ba pare di ko doxee mm-hmm. ñun dañ koo doxeewul xamuñu lan lañ ko def folklore lañ ko jëlee maanaam jullit gi bu événement ñëwee nañuy togg lu neex nañuy sol lu rafet nañuy dugg si kër diw baal ma àq te fekk def nga ko loo xam ne boo ko leerul bu la baale àq sax baal la àq ay ca ngi noonu nañ ci bàyyi xel eh, sunu xalifi comme ñun wax rek lañ mën wax rek lañ am amuñu sañ-sañu naan diw jaara fii diw jaara fii c'est à eux de génn ñu wax xasida bii ci lii lay wax xasida bii ci lii bii feewu société la fu la neex dugal ko fa am problème parce que ab problème mbiri àddina lay wax mais li nga xam ne daa jëm ci diine ji moom laal ñu borom laal yeneen ci beeg yooyu mm. noonu taggatu yeneen di bi sax xiin yi mën nañ koo bàyyi waaw nañ ci bàyyi xel daal màggal gaa ngi jub si dem leen def seen farata ñibbi si bàyyi sañse beeg si nab ni ko sëñ Bass Abdou Khadir waxee ci communiqué bii bàyyi leen ci xel waaye am ñoo xam ne seen déggukaay fat ñoo raw canal bu bouché ayca li ñu tërale woon ci waxtu jeex na di jaajëfalaat ñëpp rek ci li nga xam ne mooy ànd beeg euh, teewlu bi seen rajo suñu Kër FM Cheikh Tidiane waaw euh, di jaajëfal auditeur auditrice yi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel ci seen premier numéro de la semaine euh, seen émission suñu kër matin di jaajëfal ñëpp di nuyu Bourama Ndour maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Pawali Ndiaye moom Junior Cissé ñoom ñëpp Matafa fàttewuma kenn ñoom seeni Fall Senghor from Toubacouta maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax eh, di jaajëfal ñëpp di leen jox dig ba suba incha allah. ayca soxna Roqe. Eh, di jaajëfal ñëpp rek eh, soxna Marie di leen jéggalu tamit ci kàddu yi buñ fi waxee loo xam ne offensé na kenn rek suñu ñàkk mat la ak suñu ñàkk xam-xam waaye bëggoon a defar rek moo taxoon ñu lu ci jub tamit yàlla suñu borom la ndax mooy leeral lépp mm. ah, di leen gërëm di leen sant ñoom ñi nga xam ne rek saa bu ñu xëyee rek ñu ngi ñuy teewlu du ñu xaar ci suñu émission bii di suñu kër matin di leen wax rek delloo leen ñu suñu ay kàddu ñu delloo leen seen ay nopp di leen jaajëfal di wax dig daje ba ëllëg incha allah. ayca mi ngi noonu dig daje ba ëllëg incha allah rédaction bi dina fi dellusiwaat digtal leen xibaar yi ci kàllaamay kocc ak nasaxaan 10 léegi léegi ngeen mën kii di DJ Elzo ci seen émission nay neex ngeen mën ko koj ci suñu plateforme Facebook YouTube waaye itam TikTok ngeen mën ko am ci eh, via fi nga xam ne rek mooy kontam ngeen mën a am live bi eh, di ziaraat ñëpp rek di baluwaat ak ñëpp lépp luñ fi wax mu dëng suñu matadi la ak ñàkk xam waaye lépp c'est dans le but de bien faire luñ fi wax rek mu jub ba askan yu mën cee jariñoo ba ñuy déglu mën cee am leçon yuñ ciy tiire mbaaxu yàlla la ak yonent bi waaye du suñu xam-xam ndax gënuñoo xam kenn gën ñoo jàng kenn itam euh, lu méccewoo la lu ñu war a def la bokk na ci suñuy rôle ñu mën di bàyyi loo xel ndax àdduna moo ni mel fàttali wante la man mën naa fàtte keneen keneen fàttali ma euh, suñu kilifa yi tamit seen rôle mooy bu ñu wàccee yoon ñu teg ñu ci yoon ci loolu lañ leen di xaar comme ni ko sëñ bas Abdou Khadir defee ci sortem bi ñi nga xam ne tey ñoo waaj pour dem màggali ba Serigne Touba boobu ñu bàyyi xel ci li mu wax mais bañ a bañ a bañ a topp folklore bi euh, bañ a topp li nga xam ni rek da leen di jural ay bàkkaar mais duñ fa jëlee yiw ñu mën ko di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax di jaajëfalaat ñëpp encore une fois di leen jox rendez-vous ci seen deuxième numéro de la semaine suba ci talaata ji incha allahu rabbi jàngeen jëf kendal ak jàmm Ah.